بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بك بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس أحوالك أسمالك اللهم تحيتك السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين كن أمامي وكن قلبي وكن وسطي وكن وسطي وفي يميني شمالي لا حبيت دعوة وحق حلاوة حبيت دعوة salaamaaleykum wa rahmatullah man xanaa indi sama jëmm ji rek waaye lépp loo xam ne lii ma toog naa jàll rek sama kàddu moom jàll na ko noppi li ci des teg naa ko ci loxo ji ndaw yi ci sama fekk sama jëmm ji nag danaa ko indi ba ngeen gis ko ba tax sarab si moom fiihaa yafaraqu kullu amrin hakiim amran te am xarit màggal nga am rakk ci gàmm rakka maam wax nekk ci baax ci guddi kii guddi fukk gi ak juróom lépp lu sama borom moom nga ci jàmm bindoon na ko ci guddi tey gii guddi fi lay yéegal lépp loo xam ne nii soo yéegalee ci dëgg kon ndànkal ko yàlla na ko dàqal bind juróom-ñetti weer nga toog bind naa naa ko waaye dugg may na ko tuub may na ko jégg may na ko ñaan may na ko toroxlu may na ko sax sax may na ko ba ci mujj gi nag ma ne li tax may yàlla maalikal mulki zul jalaali wal ikraam ma jàll kan lay nga xam ne moom lay sëñ bu ko sëñ lépp jàll loolu moo tax Seex Xaadim santaane ci guddi gi ñetti si ko village xanaa aalim yaa ngi toog di ma déglu loolu donc changement mosul soqeeku fenn la ko ci yàlla di nga xam ne nag ab jaam am luñ ko mën di defal te liñ toogee fii daaw ba fii nu toogal nii ci guddi gii lépp loo xam ne luñ tëri ca doomu aadama la jëfandikoo yàlla mu saa yi si ak bàyyi nit dañ ko bind ci bàkkaar bind ko ci tuyaat xel bët làmmiñ tànk xalaat moo tax seen xarit boo demee ñu tax na si ne yàlla bu muy làmmiñ yi bu muy fikir yi bu muy kër làmmiñ moo jiitu xalaat xalaat andi xalaat xalaat andi jëf ma ne yàlla bu muy làmmiñ bu muy fikir bu muy kër loolu ba comme te ñaar fi xalaat bi nga xam ne koy ñaanal nit ñaanal ko yàlla yàlla ko yàlla yërëm di jiital foog nañ ne kuñ dox rek moom waaye kii dox ko day jot ngir mën yàlla bàkkaar su amutoon njëggal yàlla ci bàkkaar kon nag yëpp boo xam ne jëf jëm nañ ko lii ñu toogoon fii daaw toogaat feneen yàlla nañ fi toogaat déwén. baax ak bon guddi ak baax ak guddi. tedd nga rasulullahi ak sax xadim lépp loo xam ne jëfoon na ko lu ëpp lu jàll moom saay saay bàyyi ñi fi wàcc yàlla na yàlla yërëm ci jëkkal ñi fi tëdd yàlla yàlla saafara fi nekk ci tur tur bi yàlla ko yàlla dénk ñi fi nekk ci jafe-jafe yàlla yàlla saafara lépp saay bàyyi lii dafa mënut a ñàkk ma yëg sama kàddu rek ma wax ko njër ma waaye lépp loo xam ne sos nañ ci wax rek ma ko war a feeraan toog feeraan toog lañ ca gannaaw waaye bu ñu kii def lu sukk Cheikh Mor Diamat sa bàyyi tàbbal bi kanam maa la ko moom nga jébal sa xalaat sëñ Cheikh ñëw nañ nañ ko dati dati bi mooy nañ ko nuyu sa la ñu toog ak dinañ toog ne sëriñ maama may naa la guddi su guddi mu si daan dem ak ba saa maama loo may seetlu ma 대화 좀 하다가 시도 그거 그런 시대 어떻게 하라고 maanaam ñoom ànd ak ñoom ànd ak ñoom ba tey yàlla seen dimbal yi loolu moo tax say na seede sëñ maama nga ne ay kàddu ko sëñ maama dama bëgg mu seede ma

mosul bàyyi keroog bés ñu koy demee laa ko xam kan moo bàyyi loola ba bis na tey bàyyi moom nit bu war daal teel a ko yónnee mu dem bas di caatam ndeyam bu ko yónnee mu dem dara war ko gën mooy nangu li yàlla dogal ba noppi taay. saxaat bu ko defee naa ko saxaat so bu ko jox nga lay toog naa ko déedéet jox nit ki jox nit ki mu doon ba ànd sa kër yàlla na waaye li muy guddi guddi li ma tolee ko des waaye li ma doon def ma doon def def ñu jëpp xam nga maa ngi ñaan képp ku fi teew di wën luy tax nga teewaat bu dee teewul yàlla daal teg bu dee si yaram yàlla ko yàlla sax bu dee ñàkk yàlla sax moom jox na yàlla xéewal ko sutura ak sax di nga xam ne saytaan na la waaye ku ko ëmb doo am dara Seex Xaadim danaa comme jox ay ko bàyyi ko fàttali ko di ko di barke ma déedéet su ngeen ko barkeeloo saytaan nga ci jaar waaye man nga gën jaamu yàlla am baax na te sëñ Cheikh Baal wax ma ne sëñ ma loo dagg na moom moo ko sëñ Tuubaa fii xëy na kooku bi bis kala talaata la ma ci géej gi ba ñëwaat tàmbaat ba weer ma dellu si ci jëm bis dana doole seen ko am kii pas-pas nee na loolu waaye bu léegi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dama ko Ahmadu mën a ko mbàkke fekkoon am naa bëgg bëgg bëgg adduna tépp ko seexante ci la ko mu soxla àllam seeti maam seexante rek parce que nag comme que dina ko mbàkke sama kii wax dinañ la na rongañ la rongaa jaar ci baaraam taw Ahmadu mën ko sa ñàkk adduna jeex fukki fan ak weer weer ba révision fukki fan ak juróom la am te gàtt Sëñ Tuubaa la taxoon ma ne ko man la doon jaamu yàlla am baax na te li Sëñ Tuubaa ne wéer wéer dafa ko am yàgg moom xam ne fii de kër jaar néeg jaar ma defal néeg jox ko Seexul Xadiim jërëm ne foofu nag daal di kàddu ne ko néeg dinañ ci def kii bi néeg bee doon doog te su ma mënoon loolu dama laaj sax wala lay tax lépp lu lislam sum mu sotti wërsëg la bokk yàlla tax lay tax lépp lu yàlla def ñu mën ko def wér ci la yàlla tax lay tax niñ ci jàpp mu yëkkati mbooloo ci la yàlla ko yàlla sax asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu tubaab sëñ Mor Sambour def ko ci defañu ko ci moom lu tam yàgg bi lool nag ndax sàngab kër gi la waaye sàngab tool bi yëpp waaye sàngab jël yëpp kon mboolem ku taw ci baat bi ñu ngi ñaan ngi salaam ne sëñ Fallou yàlla fi yàgg ci wér sëñ Fallou Gueye yàlla na fi yàgg ci wér yéen ko wax yàlla ngeen fi yàgg te wér liggéeyu Serigne Touba bi ngeen liggéeyal sëñ Mor Mbaax yàlla nañ ci am ndam dañu ànd koog yow ànd koog dong yi ci barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa di ko ñaan yàlla yal ko yàlla may fan gudd ak wér ak mbooloo nga ci gannaaw di ko jotal Serigne Dame ak Roxi be mor nange ay samba ngi ni tok len man ak imam baba ak bolé magi tok bi yépp nak di ñaan bu digé yalla yalla def barké ay ñu lay ñaan nga ñaanal leen yalla seen yaram suta dana yalla yalla delu leen ci mbolo mi and ak wër ak katan ak taw serigne bi ñi ngi ziara benen yoon di bég ci jotaay bi nga xamante ne suñu bàyyi waxee sax ndax sa jotaay ba mooy fii ci moom wax dëgg yàlla li ñu gis mooy ak mbokk sax te bés dañoo demoon kër suñu Omar mii toog ñu nekk ay moromam dem kër bay yenn fa waxtaan bay bëgg ñibbi bay daam dundul yàlla yàlla yokk ay leeram yu nekk wér yàlla yàlla xaral aljanna ñu dem day génn mu oo ñu mën ñëw nañu ñëwal leen ñëw toog mu ñu ah seen àndoo kii mbaa ak murit ak ak tijaan bu ko yàq ñu ne ko déedéet bay mu ne kon loolu laa bëgg dégg kon tey bu ñu gisee tey ci wàllu tijaan yi ndaw yi ñooy toog ci taabal ji di jàng alxuraan di jàng xasida yi di jàng way yi di firi di bégal nit ñi ci yàlla ñu dikkaat jotaay bi it gisaat lu mel loolu doy na yaakaar li nga suñu waxee sànq Ibrahima yaa ngi waxoon ne développement réew su la ne développement dëkk su la neexee nga ne développement famille mooy mi ngi ci dox ndaw yi waaye yan ndaw mooy ñu am culture mooy ñu am jikko ju rafet mooy ñu am yitt yu koy dëgg-dëgg guddal yéen. dundal guddi gi yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy gën ci yitte kon sëriñ bi ñu ngi ñaan nga ñaanal ndaw yooyu yal na yàlla yokk leen yàlla dafa leen xam-xam xam-xam bu ànd ak barke waaye nag ñi ngi ñaan nga beral ñaan jigéen ñi nga xam ne dëgg-dëgg fu góor ñu mas a taxaw ci yoonu yàlla rek jigéen ñëw taxaw ànd ak ñoom te jigéen dëgg bi àndoon nan jàppante nañ lépp lu xew ñu ngi cee taxaw sëriñ bi suñ daam juróom kàddu gi mooy gën a matériel te mooy gën a àgg waaye ñu ngi lay ñaan yàlla sa taxawaay ci jolof ñëpp gis nañ te it ak bennoo ngay woote foo mën a nekk bu demee ci dëj yi ñëpp daje ku nekk bëgg jël kàddu soo jëlee kàddu boo waxee mu doy ñëpp loolu ñu ngi koy seedeel di la ñaan yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaay daam ñu ngi lay yàlla yàlla yàlla gën na yokk fan wi dëgg-dëgg bég na ci yow bég na ci sam topp te bég na ci taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi suñu wootee ci dëkk bi lu jëm ca pays bi muy Médina Baye duñ ci gis xalaat ne murit ak tijaan ñëpp ay jox seen wax te loola ak àndoo la te loola ak mbokk la ak mbokk moom mooy li nga xam ne moom la yàlla déggaate kon nag sëriñ bi ñu ngi jégalu ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati suñu kanamu kilifa liñ yéen rek moo tax ñu si jël kàddu waaye as ndaw lan loo xam ne sunu kàddu jotewut matewut ñu ngi lay ñaan nga ñaan ñu fasaha ak baraaxa ba luñ ci yaakaar ñu teg ko suñu loxo yàlla matal ko incha allah ñu ngi jéglu benn yoon ma zalika alay bi azizin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الذي دارسه وخاطبته في البر السيد الذي هدي المختار وهو وزرها يحيي تحليلا عودي من يمين وسال أيوم الكريم يسجد عليه الصلاة من وسلم وسلم ما رأيت ولا شاب مثلكم ومن وسلم أحسن إليك يا أمنا ترتدي يا من مداوس أقسم أقسم يا سبيل وسيلتي مناقضا يوم السماء وقتي من الفجر والكهان إلى البرد والأبرار أنت تزيد وقصدت بالإسلام يا نور منيرا بالإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سمدا على شفيع في كل يقين مع الأيام والغسام والصدر الأعوام ثم يستقبل أني كل من سيد على عقل صديق الوالي كما كان في القارئ ñu gis nag ay ndaw am ak gis ñu toppee seen cheikh ak seen maama radiyallahu taala anhu mu mos a toppee loolu lépp ne ñu nekk ndaw di ko seetlu ba nii wax dëgg yàlla li sëñ Moussa wax sëñ Moussa wax rek nee na dafa def di nekk xalif moom it xam naa ne dafa jàpp na ne mbir mi dafa dab rek waaye xam naa ne du lu muy lu muy sàmm wala lu muy euh, bëgg loolu moo xam ne kon nag ñu ngi koy ñaan dara jël solo xarit suñu borom yàggal suñu kanam boole ko wér zahiran wa baatinan ñett ci gannaaw mu ñuy digal la ñuy def li muy tari ñu ci gis loolu la ñuy sàkk kon nañu ko ñaan rob yàgg ak Cheikh Khadim léegi dama xamul ndax euh, Cheikh de Bélac nekk fi mu daal dëkk bi. ah sëñ Baye. wala nekk fi sëñ Baba Baba Dund mais nekk fi waaw kon baax na waaw. léegi xam naa ne Cheikh Ibrahima nekk fii kon ñu jàll ci xam nga rek aussi yàlla def na bàyyi moo rox ci gaaj daan na fi teew ren yàlla doon na teew na xam ne ne tawa moo tax teewul kon ñu ngi ñaan ci dara yu guddi bi dara jël suñu xarit suñu borom saafara moom jógu jàmm sëñ Mor Mbengue Manga nit daan na teew moom ku ne xam ne ne tawa moo tax teewul moom ñu ngi koy ñaanal saafara saafara ba mu jóg jóg ci barke guddi bi euh, comme ni mu koy waxoon nag sëñ Dame Gaaj teewul waaye imam Baba Koundoul teewal na ko kon moom ñu jox ko kàddu bi bu noppee yi donc gis nañu Abdou Gaaj fi mën na ko jox mu mu na sànni kon imam bis kon ñu ngi koy fàttali di ñaan yokk ay leeral ci barkeb Cheikhul Khadim ak mbokkam ñoom fekk yi muy yaatu jaaya adee gaajak ak ñëpp ñi nga xam ne jiit na rek ñu ngi ñaan ci barkeb guddi gi sans borom yokk seen leer dara Cheikh Xadim kon nag bismillah ak déglu tuuti waaw soxna Mbaye dafa am lu mu sànni ma jox la waaw bis kon soxna soxna Mbaye mën a gundul dafa am kàddu bëgg a sànni ñu taw la waaw nee nañ ñu ngi sant ñu ngi sant yàlla di di di di di sant suñuy wajur di ñaanal borom kër yi jiitu yàlla sa borom xare aljanna amiin neen guddi dafa sori ba pare da dañuy ñëw ci seen naataango ñëw jigéen ñi waa M3J mu ne waa mouvement M3J te sëñ Fall Koungheul jiitu ko ñoo dimbale jigéen ci la taal cinquante mu ne am fukki junni di sant di gërëm nee na lii yàlla yàgg amiin murid yaa am fi moom ak moom moo fi am dëgg la boo fi jógee dem kër baay boo fi jógee dem kër baay bàjj nga fay fay boo ko demee jógee dem kër nijaay nañ fekk yaay kon mbokk la jërëjëf soxna la jërëjëf rafet na jërëjëf waaw kon suñu paree ñu gis leen jërë ngeen jëf. nee na soxna Ndeye Mouna. ak waa dëkk bi. ak waa dëkk bi. nee na ñoom du mënu leen a fay. nee guddi gii. guddi gii. ànd nga ko ñoom ba mu jeex. kon ñu ngi ñaan yàlla. kon ñu ngi ñaan suñu borom. ñi fi teew ren. ñi fi teew ren. yàlla nañ fi ànd bi. yàlla bu ko dara yàq. yàlla bu ko dara yàq. yàlla nañu toog. yàlla nañu toog. bay màggat. bay màggat. diraamaan. diraamaan. barke sëñ Fallou. barke sëñ Fallou Mbacké. barke sëñ toog. waaw barke sëñ Baye Gaye mee. barke toog. yàlla na sax yàlla sunu borom may ko wér. du fanam wér ay. du fanam may ko nee na ki ko dee. yal na yàlla yàggal leen fi. yal na yàggal leen fi amiin. guddal seen i fan. guddal suñuy fan. wéral seen cër yi. wéral suñuy cër. barkeel seen njaboot. barkeel suñu njaboot amiin. ngeen wàccee bay gay. nee na bi ñu wàccee bay gay. yàlla ki seen i doom wàccee. yal nañ suñu doom wàccee nit. barke sëñ Fall. ak sa. gërëm nañ jigéen i tijaan yëpp nag. nee na soxna tijaan yëpp. maanaam am ngeen gërëm. togg di yekk. togg di yegg. ànd ak ñoom ci naaj bi ànd ak ñoom ci naaj bi. xam nañ daal affaire bi mbokk la. xam nañ dëkk bi moom seen seen dëkk la rek. lépp la rek lépp yëpp benn la. yëpp benn la jërëjëf. soxna Daba Ba sunu sunu yaay en ah, bay sunu yaay nee na juróom-benn bi trois cent mille. ñoo ko la taw bi trois cent mille francs. kàddu yaa dama gaañ. ci kàddu yàlla ba gaay. yàgg fi yàgg déwén amiin. dawul dara kàddu faali ji taal. kàddu kàddu soxna faali taal. kàddu ndey mun a gaay. kàddu soxna ndey mun a gaay. kàddu wóone kunul. kàddu soxna wóone kunul. ñun ci des ñun ay rakk rek lañ. nee na ñoom ay rakk lañ. ak yàqu jégaar ak yàqu jégaar yàlla na yàlla may wér. yàlla na yàlla may wér amiin. yàlla na yàlla yokk fanam. yàlla na yàlla yokk fanam amiin. wasalaamaaleykum. juróomi junni yi. Mais y a junni yi moom mooy reeru sëñ Fall ba reeru que Fall ba ñetti junni yi nijaay bay gay mbaax ñetti junni yi gay ah? gay wala ndekkew ñaari junni yi ñaari junni yi alaaji moo rokk sëñ baam bay daam bay daam bay daam sëñ Abdou léegi léegi bay daam daal waaw waaw ñaari junni yi ñaari junni yi moo rokk gaay moo rokk gaay sam nooso ak Mor Menge alaaji sam nooso ak sëñ Mor Menge ñoom ñoo moom loolu ba Baba Nguru moom moom junni alaaji Baba Nguru imam Baba Nguru ak maa Ibra junni bi junni bi alaaj baaxu nguru ba mbéyeen sëtu mbéyeen benn junni bi sëtu mbéyeen xam naa kon yaa jox sëtu mbéyeen junni waaw waaw leer leer ma la dee sëñ bi dina ñaanal réew mi ñu joxe te cinq cent mille xalal leen amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin ah, amiin am na wuute it yu bari ci boroom xam-xam yi waaye bu dee ñun waa tasawuf ñun ñi nga xam ne ñoo gëm tasawuf li ñu ciy wax te jëlee ko ci suñuy référence yépp yu wér la danañ wax ne weer la woo xam ne Aïcha sayidatuna Aïcha soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan daan woor daana ko woor ba des tuuti feneen mu ne boo demee ci Buxaari imam Buxaari am na fu mu wax ne sax daana ko wóor lépp waaye il daana ko wóor ca Tirmisi illa qalilan wax boobu mooy bi gën a lëng daana ko wóor ba des tuuti ngir màggalee ko weer kon weer wu màgg màgg la weer la woo xam ne it sëñ bi junj na ko yonent bi daana ko woor buñ ko waxee lu tax nga di ko woor mu ne weer na woo xam ne jëf yi ñu doon jëf ci at mi yépp ci la ko yàlla di yëkkati yóbbu ko nag denc ko fañ koy denc lu dul loolu ñu ko bàyyi ci yow waaye bu weer wi ñëwee dañ koy yëkkati yóbbu ko ci yàlla denc ko nag weer wi lañ koy def mu ne damaa bëgg nag bu ñuy yëkkati sama jëf yu baax yooyu di ko yóbbu fekk maa ngi woor fekk maa ngi woor loolu secret la ci koor gi mu ko daan woor waaye weer la woo xam ne it weer danañ ko tuddee chaarul maxfira weeru njéggal weer la woo xam ne yàlla da ciy jéggale bàkkaar yàlla da ciy jéggale bépp bàkkaar muy bu mag bu ndaw waaye weer la woo xam ne weeru préparation la pour préparer koor gi ndax weer la woo xam ne ci kanam tuuti dinañ ci ak si ci Sëriñ Tuubaa ni mu ci daan waajalee weeru koor lim ci daan waajalee weeru koor ak lim ci daan soññe ak lim ci wax lépp dinañ ko wax bu soobee yàlla lu ci bari waaye weer la woo xam ne yàlla day xool jaamam yépp bu nisfu saabaan muy guddi tey gii yàlla day yër day mel ni ku yëkkati di xool mbindeef yépp tàllal leen loxo ndax ne ndax amul kuy jéggalu ay bàkkaaram ba ma jéggal ko tey ci we guddi tey gii muy guddi Sha'baan ci xadis boo xam ni Aïcha moo ko nettali waaye yàlla dina ci jéggale bàkkaar ba mu des ñii mooy ab bokkaalekat kooku génne nañ ko ci yàlla di jéggal ci guddi gi waaye kuy bañ mbokk jullitam kooku génne nañ ko ci njëggale googu yàlla da ci génne it ñiy soxatal ñi nga xam dañuy ëmbal ak coxor seen mbokk jullit waaye weer la woo xam ne it weer la woo xam ni it ni ko imam Shafii waxee inna duaa yustajaabu fi xamsi layaalin nee na ñaan ñu ngi koy gën a nangu ci juróomi guddi yi ci at ni mooy laylatul jumaa mooy guddik aljuma ak guddik iid buñ ne suba la tabaski guddi googu wa laylatul fitri ak guddi guñ ne suba la korite iidul fitri ak guddi gi njëkk ci rajab ak guddi gii ñu nekk tey muy guddi nisfu Shaaban guddi yi neena na imaam Shafii boroom xam-xam bu mag boobu nee na guddi yi ñooy guddi yi nga xam ne yàlla da ciy nangu ñaan guddi la goo xam ne guddi ñaan la guddi gu màgg la ci lislaam guddi gu ñu barkeel la guddi gu ñu tànn la ci biir guddi yi guddi la goo xam ne guddi njëgal lañ koy wax bokk na ci ay turam laylatul maxfira ngir bëri gu yàlla bëri ñu ngi ciy jéggal guddi la goo xam ne yonent bi daane ci dénkaane ñu fanaanoo ci woor bu subaa guddi la goo xam ne dañ ci taxaw di ci jaamu yàlla ci xeeti jaamu yàlla yépp joxe ci ñam berndeel ci jàng ci alquran yooyu yépp ñëw na ci téere tasawuf yi di wane ne guddi la gu màgg màgg guddi la goo xam ne ni mu ñëwee ci hadis ibnu maaja nee na bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su guddi na su shaabaan ñëwee na ngeen jóg ci guddi gi màggal ko bu bëccëgee ngeen woor ko fa inna allaha yanzilu fiha yàlla da ciy wàcc li xurubi shams ba baa jant di so ba ci asamaan si gën a suufee fa yaquulu su ko defee muy wax moom yàlla ne ala ala min mustaghfirin ala dama ne hal min mustaghfirin ndax am na kuy jéggalu fa aghfiru ma jéggal ko aw min mustarshid mustarziqin ndax am na kuy sàkku wërsëg fa arzuqu ma wërsëgal ko hal mubtala ndax am na ku ñu teg tiis ak nattu fa aifu ma ma ma teggil ko ko noonu la yàlla di wax ci guddi gi ba guddi gi jeex ci xadis boo xam ni ibnu maaja moo ko nettali guddi la goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jibrilu ñëw na ci man ne ma guddi gii guddi goreel la ci sawara guddi la goo xam ni yàlla dana ci goreel lu toll ni kawari xari wala juri giir gu ñuy wax kulab bu doon fii da naan giiru pulaar ñu am ci xar yépp kawari xar yu toll noonu nit ñu toll yàlla dina leen goreel ci guddi gi guddi la ko ba mu des nag niñ ko waxee woon mu ne kuy bokkaale ak kuy bañante ak kuy dogu mbokk ak koo xam ne ay woy juróom koo xam ne nii dafa saxala naan sàngara ñooñu yàlla du leen jéggal ci guddi gi guddi la koo xam ne am na histoire yu mag yu ci xew bokk na ci mooy guddi la goo xam ne ci la ñu walbati xibla gi mu jógee yonent bi da daan jub yonent bi bu daan julli da daan jublu baytil maqdis baytil maqdis mooy fii Palestine nekk tey di xëccoo ak Israël foofu mooy ñetteelu jàkk ji foofu la yonent bi daan jublu guddi tey ji bésu bii ci nisfu Shaaban ci la ko yàlla walbatee nag ne ko léegi del jublu ci Kaaba gi muy makkatal mukarrama mu nekk lu yonent bi bëggoon yonent bi yàgg naa ñaar yàlla tànnal ko beneen xibla waaye guddi gii la ko yàlla defal xéwal bu toll noonu guddi la koo xam ne gu màgg-màgg la ay ngëneelam bari na foog naa loolu doy na waaye weer wi ci boppam moo màgg bu ñu delloo ci mbindi sëriñ Touba danañ gis ne jagleel na xasaayit yu bari weeru Shaaban xasaayit yu bari wuy na ko ci Chaabaan di ko ci tagg di ko ci màggal waaye bu Chaabaan boo demee ci mbindum Cheikh Mouhamadul Bachir nee na sëriñ bi bu rajab masaana tew lay tàmbali di waajal weeru koor rawatina bu Chaabaan ñëwee nee bu Chaabaan ñëwee bu Chaabaan duggee rek day commencé taral ay waareem day yokk ay waareem di jajji taalibe bi di leen moytuloo fo moo xam xawum gone wala fewum mag di leen leen digal ñuy waajal seen bopp ndax am na luy waaj a dugg si loo xam ne ni lu màgg màgg la daawul toog benn jataay lu may dana ca waare fàttali leen ne leen seytaane ku bëri pexe te am na luy bëgg xew na ngeen defarwaat bu baax moom akum njabootam na ngeen nemmeeku seen xol yi kenn ku nekk nemmeekul sa xol bu baax a baax ci weer wii ndax seytaane wóor la ko ne weer a ngi bëgg ñëw woo xam ne dañ koy tëj tënk ko dootu mën a dox dafa bëgg nag balaay boobu jiw wi mu yore mu sànni ko ci seen xol yi bon wi mu yor dafa koo bëgg a seen xol yi ba bu weeru koor ñëwee du ngeen ci am la ngeen ci war a am kon xiroon na lool lool ci weer wii di ko santaane di ko màggal waaye di ci waajale weeru koor waaye bu nekk it weer woo xam ne ci bëccëg dégg naa ci mbokk yi ñu ne ngi biñ ko commencé màggal ak léegi depuis mu ngi nekk 1955 loolu 1956 waaw 1955 mooy date bi nga xam ne ci la ko waa Daarul Muxti commencé màggal kon benn at dañ leen jiitoo ci màggal ko Maam Thierno mu ngi fi jógee 1943. ñu commencé koo màggal bis bi mu fi jógee mooy ñaar fukki fan ak ñeent ci guddi ñaar fukk ak juróom ci weeru Chaabaan wi di ko ko màggal 1944 ba 55 sëñ lu jox leen digal na leen bàyyi leen bis boobu te jël bis bi nga xam ne mooy bis bu xam ne nii bis la bu am taarix ci yoonu murit mooy bisu gannaaw bi sëriñ bi demee ci géej gi doxi mu doon doxi indi sëriñ ci ba mu doon indi sëriñ ci bi mu doon indi maam lu mi mu dénkoon dong yi ak daara ji ak taalibe yi ak cheikh yi ak yoon wi bis boobu la ñu tase te foog naa nu bis bu màgg ngi noonu kon indi leen ko ci bis boobu di ko màggal loolu mu ngi nekkoon cent 1955 kon yéen a ko commencé 1956 kon benn at la leen ko waa Daaru Muxti màggee maam Cerno moom nag nekk euh, góor yàlla boo xam ne mooy murit saadix bi nga xam ni moom la sëñ Touba defar bëgg ñëpp mel ni moom mooy ki nga xam ne sëñ Touba bind na ko ay lettres yu bare tuddee ko ci tur yu rëy bokk na ci lettres yi dinañ ci tudd ñaar ndax la ndénkaane ba ëmb wax na ko àddudi sama loxo nday joor maam Thierno sëñ Touba tuddee na ko tuddee na ko Ibrahima allazi lam yuxaalifnii fii sixari laa fii sixari wala fii kibari Ibrahima mi nga xam ne mësta uuteeg man du ci ndawam du ci magam tu wax na ko tuddee na ko ayyuhal mazbuuxu bi xubbina yow mi nga xam dañ laa reñ ngir bëgg ma dangaa dee ci bëgg ma tuddee na ko ayyuhal muridu sadiq xam ngeen ne murid sadiq yombut murid sadiq dañ koy wax ci làmmiñ rek waaye murid rek yombut waxuma la àgg ci sadiq jël moom sëñ Tuubaa woowee na ko sëñ Tuubaa du fooyee ay baatam murit saadiq mooy maqaama la ci maqaama yi nag wax dëgg yàlla murit saadiq waxoon nañu sëñ Tuubaa ne nañu woon isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmani xaytu xasada nee na foo gis murit muy dem bul laaj te bëggul aljanna rajul sawara bëggul alal bëggul dara ngërëmul yàlla lay wut nee na murit saadiq mooy ko maam Ceerno nag nee na ko kooku mooy murit maam Thierno ne na ko murit sadiq la sadiq mooy dëggal ci biir dëggal ci biti say jëf say wax say jëflante sa lépp day dëggu ñëpp jàkkaarloog yow ak yow dong nga nekk ñoo yem ci lépp sëriñ bi gënal la sa lépp yàlla gënal la sa lépp ak yonent bi loolu lu jafe la maam Thierno sëñ bi tuddee na ko noonu maam Thierno moomu nga xam ne mooy ki sëriñ bi defaat moo boole xaqiqa ak sharia di ko dund liggéey liggéey bu gane aduna ci waxtu boo xam ne dañu doon taxawal l'islam ca profane ñu ne ci Jabarkunda ci jamono boo xam ne Maba Jaxu Ba mu ngi jël sëriñ sépp yóbbu leen Saalum ngir ñu xeex xeexal l'islam yóbbaale Maam Mor Anta Sali ak yeneen i sëriñ ci yëkkati kalimatullahi waaye foofu la maam Cerno gane aduna bi muy gane aduna bal yaa ngi di yëkkati kalimatul islam aw kalimatal islaam maam Thierno nekkoon loolu rek benn mandarga la mu rafet ci moom waaye li mu gënee àdduna Maam Mor Anta Sali nekkoon ku baax nekkoon ku bëri xam-xam def na woon sëriñ bi kii de boo doon Moussa mooy sama Haroun boo doon moo doon sama Haroun yow de sax ñaan nangu na kii de mën na laa jàppale ci liggéey bi sëñ Touba nag nekk koo xam ne yoonam wii lepp du ko wajal defal ko boppam ñii jàngal alxuraan mo len defar ñi jangal xam-xam mo len defar ñi tarbiya mo len defar soxna ya mo len defar lepp moko defal defar ngir taxawal yoon ñom ñep ñu mëna nek nekk fam len soxla ñu jappale ko ci yoon bi maam mi bim mu aduna le la bi dem bindep téere xoti perum saket mi joxe na nañ ko ko takkal mu wër nek ba semaine bobu yeb difa jang al alquran jang ko sabul mun moy ñaan gu barkel gogu sëñee ar juróom-ñaari cëram ba maam Thierno mënut def lu naqari yàlla maam Thierno moomu moo am na lu sëñ bi bëggoon ci moom loolu nag la bëgg ci bépp bi kon bu ñuy jàngale maam Thierno li ñu ci jublu mooy taalibe bu nekk nga xam ne am maam Thierno nga war a doon soo mënut a yegg fa mu yegg nga jéem koo roy loolu mooy wax bi maam Thierno nekkoon ku bëri jikko yu baax nekkoon koo xam ne dëgg googu da koo defoon. waaye dafa bëggoon sëñ bi kon ni ko waxee yow mi nga xam dañ laa rendi ci bëgg ma waaye nekkoon koo xam ni topp ndigal da cee demoon ba jeex li ko sëñ bi dénkoon bi muy dem ci géej gi lépp da koo matal koo xam ne sëñ Tuubaa dafa yëkkati njabootam ak ni mu fonkee njabootam yëkkati ay ndénkaanam yëpp teg ci sa kon am na mu ko tegoon waaye maam Thierno moomu sëñ bi bi mu demee ba dellu si bokk na ci li daf na ko waaw Thierno ndax yow suma demoon nga dess fi sax so demoon ma dess fi ndax li dina ko mané ni néna bi señ bi ñëwé da ko delloo lepp ba ci kaasi ataaya mbuum mom defoon ci baraara bi muy dem juroom ñaari at da ko koo waat li nekkoon ku tabe señ fallu gane ji na mam ciorno ci darul muqti dem wax ko ñaari bayit yi ataytu ila mi'ta'i fi daarihi almuti liyushkiya shakwa qabd min yabil basti حميد الخصال ثابت الجيش أمة حليف الندى في حال الخصب والقحط نينا مام كيرو كدم دايا كتابو تابي ميني كتابي تابي بتي يمو كاي با ميني معطى معطى واي كوما نما نا جوخي كو خامني جوخي امو تي يمو كاي واي كوما نا فاج اديو ميني واي بروم ديكو يو ku jambar a ngi nii koo xam bu sax la am da ngeen dégg ñu naan maam Thierno ba muy dem dar nu ko sëñ Moussa Ka waxee Bamba ma muy ji ndar di nuroo gay nek baati mu boole ko waajanaan demba kebe bamba tubaab naan ko bamba lay famille be ba mu demee noonu kon sëñ Fallou ci bayit yi nee na maam Thierno ku mënoon joxe la maam Thierno ku daan faj aajo la maam fa Thierno ku rafet yi dikku la woon maam Thierno jàmbaar la woon waaye maam Thierno dafa représenté woon aw xeet inna inna ibrahima kaana ummatan ibrahima yonent yàlla ibrahima taxawaayu aw xeet la taxoon waaye moom la sëñ Fallou wax fii ci maam Thierno ummatun xaliifu nada ku taxaw tabla moo xam fii xaalee xis xis bi wal xër bu dee ci jamonoy bekkoor ak jamonoy naataange kon maam Thierno Ibrahima Fati nekkoon na koo xam ni responsabilité bi ko sëñ bi dénkoon mooy sasu murit tey mooy lii te sëñ bi bindal ko boppam mu nekkoon responsabilité yu diis ci mu wuutu ci sëñ bi waaye mu defal ko ko ba sëñ bi seedee ko sëñ bi bi muy dem ci leetar yi mu doon bind maam Cerno jëlee nañ ci lii mooy juróomi tomb ngi ni mooy bi ci njëkk maam Cerno ci ay war garab yi mu war a def mooy qiyaadatul muridiina wa irshaadihim ila siraatil mustaqim wommat murid yépp ak jubbanti leen teg leen ci siraatal mustaqim ñaareel mooy tahfiizu sigaar alquran alkarim wa taalimihim al ulum al islamiya mokkal loo xale yi alquran alquran alkarim xale bépp xale bu mën a mokkal alquran na ko mokkal sëñ Tuubaa daana wax ne mën a mokkal alquran te mokkaloo ko dara daray adduna jëru ko ak jàngal leen xam-xami lislaam muy ñaareel ba ñetteel ba ak yar leen yaru yaru tasawuf yaru tasawuf mooy jikko yu rafet jikko yu ñaaw yi nekk ci nit yëpp nga summi leen sànni jëmbat fa jikko yu rafet loolu mooy tahliya ak taxliya tahliya mooy summi leen ci yu ñaaw yépp takkal leen jikko yu rafet yi loolu mooy yaru tasawuf mboolem ñi woote tariixa ñépp seen liggéey foofu la ci jëm mooy li suñ suñ borom ci wax ci wa shamsi والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار نفوات يب لأن قد أفلح من زكاها أكتخي كسل البكنم وي وقد خاب أكا سبرت أكا صوي من دساها كي كنت لبن نت يالا دفكو بندي أي جيكو ينك شموم نك أي, أي سامبا بوي يوخمني daf leena war a xeex ak nelaw loo leen wala mu simple leen sànni sufiyanke bi moom dafa jàpp daf leen a war a nelawloo bu ko manee daf leen a war a génne bu ko mënee bu ko mënut mu nelaw leen ba duñ jëf ba duñ am effet benn effet loolu mooy liggéeyu sufiyanke loolu mooy yaru tarbiya daanaka mooy tariixa loolu mooy tariixa ndax ñun ak jullit yëpp ñoo bokk ñaari mooy al iman wal islam mooy al aqidatu wa sharia waaye fi ñu uutee mooy ci tasawuf tomb boobu te boobu moo andi wàll googu ñetteelu tomb bi mooy taalimu nisa waajibatihinna diiniya wa tarbiyatum alal qiyam al islamiya mooy jàngal jigéen ñi ak jàngal jigéen ñi xamal leen seen war war war gari diine yar leen ci valeur l'islam maanaam sëñ tuuba bokk na ci lu bizarre loo xam boo xoolee di nga ko gis tey mooy sëñ Touba waa këram soxna ya dañoo jàngoon doomam yu jigéen yëpp jàng ba mokkal alxuraan bindi kaamil jàng téere xam-xam yi soxna yi nga xam ne ñëpp jàngoon xam boo xool murit gi tey danga naan loolu xewutoon waaye sëñ Tuubaa soxnaam yëpp sëñ Daam Abdourahman loo jàngal na leen alxuraan doomam yëpp bindi kaamil jàngi xam-xam ba àgg ci niveau mën a def ay wëy moo tax ci ndénkaane yi da ci doon jàngal jigéen ñi ak di leen xamal seen waru gari diine ak di leen war ci yar ci valeur lislaam sëñ Touba loolu da ko ñaan yàlla wut sabab yépp dafa déeyaale boroom di ñaan soxna yu baax wa zawjat ma zawjatin saluhat bi diini la wax saluhat baax ci aat dafa am waaye baax ci diine la sëñ Touba bëgg saluhat bi diini baax ci diine baax ci aada baax na waaye baax ci diine bu gën ndax mooy baax gi yàlla santaane waaye jàngal jigen ñi xamal leen yar leen xamal leen seen warugar defal ci ñoom valeur l'islam lislaam waaye imaamatul muslimina fil masjidi jiite jullit yépp ci jàkki ji wa irtaihim ak di leen bu xew xew xewee nga leeral ci seen bopp bokk na ci li ñuy xaar ci kilifa mooy bépp xew xew bu àdduna yëngal nañ ci wax position l'islam l'islam ban taxawaay la ci war a am loolu mooy fatwa lii xew ni phénomène bii nii ah ñun de ay julli lañ ay taalu beneen nañ déglu suñu sëriñ gaaw mu leeral ñu lislaam li lu mu wax ak yoonu sëñ Touba loolu maam Thierno sëñ Touba santoon na ko ak jiite leen ci jàkka ji maam Thierno ay taalu benn yëpp jàkk lañ daan jullee maam Thierno sëñ Moussa Ka wax na ko sëñ Bachir Anta bi bind na ko ci téere bi maam Thierno ñaari yoon la mas a tiim ci àdduna te da ko faya faya fay ba sonn ñaari yoon yooyu mu tiim fay na ko ay yoon yoon bu mu ko fayee foog ne baaxul te te benn yoon ba dañ koo nax dañ ko nax ngir jafe ku ndox jafe woon ñu bëgg koon noppal ñaari yoon la mës a tiim am na taalibe boo xam ne sëñ Abdou Khoudous nee na dafa amoon góomi loxo ne ko sëñ bi de mu ne ko lu jàpp mu ne ko góomi mu ko seytaane rek la demal nga jàppi nee na muy jàpp ba mu wér mu ne ko gis nga kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ma anti illa usbuin damiti wa fi sabilillahi ma laqiti yor dem loxom bi naaj mu di ko bomb muy naaj mu ne ko doo dara lu mooy ab baaraam rek ngay nàcc nii dama lay raxas de dama lay raxas de loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko defoon maam Jaara ñaareel ndox Cheikh Bamba noon na jeex doon xam Birahim xam ma Bamba noon na Cheikh ma samba caat ma su ma mi ndeef doon xam kon Cerno Birahim xam ma Cernoy loxol ngay joor ba ma samba yaay càmmooñ ba loxo bu nekk la muy jëriñ borom ba nday jooro koy leyal bu lekkul faatu camooña ko illaa bal bulaa bulaatu am ngeen ma man bamba tey am naa leen te xamu ngeen ma waaye man xam naa leen su bamba doon Moussa mu dim Aaroona yoon wam awat wa seex yaw soreena est-ce que jërëjëf jazakallahu xeyran waaw juróom mineelu l'islam diina la yoo xam ne ci maam sëñ bi doon dénk maam Thierno gannaaw mokkalloo xale yi yar leen yaru l'islam jàngal jigéen ñi jiite jullit yi di leen defal fatwa di leen leeralal ci lépp lu xew lan moo ci taxawaayu lislaam waaye bokk juróomeelu tomb bi mooy iaanatul muxtaajin wa itaa'il mahrumin wa tadribil qaadirina minhum ala al amal tomb bu am solo mooy ñi am soxla ñépp nga di leen dimbale képp ku am soxla nga yëg ko mu di julli dimbale wul soxla soosu ñépp ñi yàlla xañ dee leen jox deel ñi mën a liggéey tàggat leen ci ñuy liggéey mooy juróomeelu tomb bi yoo xam ne yii mooy ndénkaane sëñ Tuubaa yi mu doon dénk maam Cerno jëmale ko ci taal bi ndax maam Cerno moo yoroon yoon bi mooy gannaaw boo jaamoo yàlla defar sa jikko jàng xam di jëfe loolu doyut waaye del dimbale sa mbokk jullit ku yàlla joxut dee ko jox waaye ku mën a liggéey ñu tàggat la ba ngay liggéey ndax lislaam bi ne liggéey dana kon bu ñu seetee leetar yii benn leetar ngi nii ñu jàng ko barkeeloo ko mu ne alhamdulillahi ala kulli xaali da tàmbalee wasalaamu ala babil kamali wa man iqtafa athaaruhu min arrijal haasa wa innahu al muridu sadiq leetar bii daf na koy leetar bii yëgal ne yow murid sadiq bi xamal ne maa ngi ci jàmm xamal ne maa ngi ci jàmm xam ngeen sëñ bi tukkeem bi ci géej gi ñetti at yu njëkk yi kenn xamut ci moom dara dara benn information amuñ ko ci moom ban tàggi ko sax ba maam Cerno ak taalibe yi gëmoon nañ ko nag ndax benn bis la soxna si toog muy waajuru maam Cerno soxna Faati Isa Jóob dégg ngeen histoire bi moo gis maam Cerno taalibe yi ñuy dugg ko génne di wax mu ne waaw lu xew yéen li lan la maam Cerno ko ku tedd ki lañ wax ni moo fi jógee te kat neexut a weddi te neexut a weddi kon koo gëmoon ndax ñii kat fu kun fi mas a jaar ak nang mu ko yaa ma bett dëgg mu ne ko yaa ma bett dëgg yow de bett nga ma kooku moo ne woon moo may nangu ci bàmmeel te defagu ko te lu mu wax dina ko def waaye boo sàkku koo gis guddi tey da ko gis sàkku koo gis guddi di nga ko gis dal ne ko dem leen liggéey nga xam ne keroog mooy kii desi woon ngëm keroog ci yoon wi maam Thierno dellu liggéey waaye dundaat na ba sëñ bi jógee ba sëñ bi jógee ci géej gi ñëw ba dem Mauritanie ba dem ba dem ba dem Mauritanie 1904 5 6 7 ba ñëw dem ci yéen mu woolu ko mu jógee fee mu ne damay deey boobu la ko wuy bi mu demee la faatu armée la nga ci ci yéen Jolof kon maam Thierno lettre boobu la ko wax daal na ko xamal ne maa ngi ci jàmm ak aafiya wa bi an nii awruka maa ngi lay digal bil ijtihaadi fi taallumi wa taalim wa fil masjidi man ngi lay dénk ñett jàng jàngale jàkk ji jàng jàngale wa mur an nisaa digalal jigéen ñi bil ijtihaadi ci ñu faru fil qiraati ci jàng wa salaati ak julli wa fil juluusi fi buyuti na ak ñu toog ci seen kër yi nañu farlu nañu jàng nañu julli nañu toog seen kër loolu la ko njëkk wax ci lettre boobu kon lettre boobu ndigal yooyu la ko ci jox beneen lettre gi boo xam def na ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waqad wasala al urzu wa sukru wa sukrul muslimina ilayya yëgal ne suukar sa ak ceeb bi julli di joxe woon mu jëm si ci man yegg si na kon beneen beneen beneen ndigal mooy ku doon joxe addiya maam ci yoon moom la sëñ bi dénkoon njaboot gi sëñ Fallou ak sëñ Mouhamadul Moustapha ak sëñ Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu leen jàngal ak cheikh yi seen taalibe yu njëkk yi mu leen jàngal di leen yar jiite waaye terewut bés bu nekk daana wàccee kaamil ci suba gi wàcce ko ci ngoon gi def junni salaatu ala nabi bi siixati salaatin tunajjinaa bihaa min jamiil ahwaali wal aafaat di ko di ko ñaanal sëñ bi mu dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm xanaa bu doon ñun booy jàngal doomi sëñ Tuubaa rek danoon ah man kay sama sas jeex na waaye loolu mu doon def ak yépp bàyyiwut benn maja benn domaine bàyyi ko ci liggéeyal sëñ Touba kon mu nit lay mel mu ne ko yi ceeb beeg sukar si yëg si na ci man fal yow ma tey xamal ne na nga soxloo bi idaamatil awraat saxalal wird sëñ Touba nag loo jàmbaar jàmbaar bu la santee gërëm na da lay dénkaat loolu nga jàpp loolu waaye fa dum sax إسمع الجزاء يا أخي إبراهيم أولاك خير الجزاء والمنادى لك أولاك فاعلم بأنك عندي زوريت أبدا وزاك ربك في دنيا وغراك لم تتك فدوم على الإخلاص على بالصدق فدوم على الصدق والإخلاص متهدا في السر والجير كي تنمو مزاياك جرم نالا نك نلور نتيلاق نسنجو وينك سخال فدوم سخكنا بول باي بول كون loolu am solo la ci ndénkaane seigne touba yeb mam Ceerno ak limi koy yëpp toujours da koy dénk rek sax moy mang lay dénk bi idamatil awrad wal nawafil ndax yi ñi agge ci yàlla du def faratay kesse yi yonent seigne touba neena wa sahha an awliya al wasilin ma wasalu ila al alaalamina bi kasrati salaati kal xajji wa nee na day wóor ne wàll yi àgg ci yàlla yëpp eggiwuñ fa julleeg woor ak nangam ak nangam yooyu waaye ña nga fa yeggee sàmmonteeg teggin yooyu yooyu làmboo bi muraatil adab ci sàmmonteeg teggin lañ yeggee ci yàlla kon mu ne ko saxal wird ak naafila wa mur digalal ba tey jami ak talamis mboolem taalib yi digal leen bil ijtihaad taalib bi yëpp boobu kuy murit rek dugg nga ci sëñ Mor Mbaaxe ñoom ak ñoom ñëpp ndax sëñ Mor Mbacke boobu fekk na mu dem jébbalu ci sëñ bi ca Touba ju njëkk ja Touba ju njëkk ji mooy 1888 1888 mooy Touba ju njëkk ja foofu la dem jébbalu jé jébbalu ñëwul ca Mbacke Kajoor ja de Mbacke Kajoor ja mooy woote bu njëkk ba bi ci topp mooy Mbacke Bawol bi ci topp mooy Daaru Salaam ñaari at yi ci Mbacke Touba ju njëkk ji nga xam ne sëñ ba am na fa 1888 ba 95 diggante boobu foofu la jébbaloo kon xam la baxari la mooy ñi nga xam ne sëñ Mbàkke Buso nee na ñu topp sëñ Tuubaa ñetti xeet la ñi nga xam ne ñoo tasanteeg bi sëñ bi amee jot liibar mu xool leen yurdu leen yar leen nam leen bëgg yaree ñooñu mooy xablal baxari yi sëñ Mbàkke Buso ko mu ngi ci lettre yor naa ko ñaareel bi mooy ñi nga xam ne mooy kat ñun ñooy peut-être première catégorie nee na ñun ñooy wa saabiquuna al awwaluun ñun ñooy ñi nga xam ni moom yegg nañ ci yeggukaay ba ñun ñooy cheikh su njëkk si ñaareel yi mooy ñi xam bi sëñ bi ñibbisee ndax boobu nag sëñ bi am na tur neex naa topp yor na bagage yor na ñu bëri waaye terewut am na ci ñu baax ku mel ni Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari waykatam bu mag boobu nga xam ne moom sëñ Tuubaa da koo jombal mu jébbalu ci moom ci ñooñu la bokk bi sëñ bi jógee ci jaar Ndakaaru jaar Ndar ñëw ba Daaru Salaam foofu la jébbaloo ci kiim daal bu waaye mu mujj nekk taalib bu dëggal am wilaaya lool bëri xam-xam lool sëñ Tuubaa yem ko lool mu mujj lu nekk ci àdduna mu wax ko lu nekk ci àdduna mu wax ko waaye ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen waaye sëñ Mor boobu la jébbalu kon ñi desoon ànd ak maam Cerno ko ci la mu nekk seen jëwriñ mu tuddee ko doom mu bokkoon ci ñi nga xam dafa bëggoon sëñ Tuubaa ba ñooñu ko waroon ñëpp da leen tuddee ak njabootam ay njaboot ay mbokkam la bàyyi tuddee taalibe sëñ Tuubaa waaye maam Cerno yi noonu noonu la def ak sëñ yonent bi sa alayhi wa sallam maam Cerno li koy sëñ Touba di yem lepp bo demé ay doom nuñ tuddu Zubayr Muaz khalid euh, sahaba yu mag yoy yu jambar yu ay njàmbaaram ba ci doomam da ci fek jambaru mam tior dafa feeñ ba ci doom ay meq daal tur yu raar ci rew mi moom ngay fekk maam Thierno tuddee len ay jabotam ngir ak jambar ak bëgg yoonte bi xam waye xam jangale seigne Touba waye mu ne ko digalal taalibe yëpp ñu farlu fi ma baynahum wa bayna rabbihim seen diggante ñoom nañ farlu waaye ak seen diggante ak seen borom ndax ñaari yee fi nekk sa diggante ak sa mbokku nit ak sa diggante ak sa borom na jag na jag wala yadruku xayra zalik lu dul loolu nañ ko bàyyi wa mur digalal akaabira talaamisati taalibe yu mag yi te mooy cheikh si digal leen fil muksi ànd ak duyuurihim nañu toog seen kër yi bilaa dawraan ci lu dul ñuy wër dëkk bi rek nag fa man loo xaajatu nag ku am soxla fan yeeseen ilayha na dem doxi ko waaye bu loolu nañ toog seen kër yi wa man lam takun loo xaajatun fal yam kus ku amul soxla na toog ndax jullit warta jóg sëñ Tuubaa ci njàngaleem ci naw joxe daal xaaj soxla dëkk moo la war a tax a génn di dem nee na loolu la fetliwaat foofu nañ toog fii mahalli yii na toog fii mahalli yii ومر النساء ديغال جيجين طيب، ني باتاي بالاجتهاد في الصلاه وغيرها من فاتو سي جولي اك جولي من جميع ما استطعنا سي مبولم لو نيو من من الخير ومر ديغال بالاجتهاد في الصلاه وغيرها في ما استطعنا في الخير ومر ديغال الصبيان ندوي بالاجتهاد في تلاوه القران حفظا رواتنا موكل كو ندوي ني نان موكل القران سي توبا سي جانغليم fépp bu muy jàngalee bu laajee séparé góor jigéen dina ko wax kon yoonam bi da cee bàyyil place yu rëy rëy jigéen ak ndaw boo demee ci tasoodu si xaar bi sëñ bi doon wax ci bëccëg naan mu jariñ la wa kaw na haza nazm nekk guy téere bii nekk loo xam ne dana jariñ chubbaan waxambaane jeune yi wa chi bi ak way bi jaay wan niswaani ak jigéen ñett ñi moom la waxaat ci lettre bii ñett ñii ñëpp da di bàyyi xel fu muy jàngalee ba laaj loo xam dafa laaj bi séparé ma féminin masculin masculin dina ko dina ko leeral kon sëñ Touba bàyyi na xel ci yoonam wi ñëpp waaye li mu wax di digalal taalibe yu ñu toog seen kër yi wuute na ak phénomène bu xew mooy dawraanu kibaarul muridin wërub ñenn sëriñ si nee na di dajale ay hadiya ak istiyaadu al adba di wur ay ay loolu sëñ Touba da ko doon tere da ko doon tere kon foog naa buñ toppee maam Thierno mënuñ koo jeexal maam Thierno gaynde la woon li si Moussa ko wax ñemee ñemee ñemee ba mel ni ak gar gar mooy gaynde ragal a ragal ba mel ni bàqaar picc moomu di bàqaar ni mu ragalee nee na bu dee ci wàllu yàlla maam Thierno dafa ragal ba mel ni bàqaar waaye bu dee ci bu dee ci wàllu yàlla dafa ragal ba mel ni bàqaar waaye bu dul yàlla dafa ñeme ba mel ni gaynde maam Thierno santakatu yàlla la nee nañ luñ ko mas a wax dafa naan alhamdulilah dégg na guddi ci daarul mooti nit di jooy mu laajte ñu ne ku faatu la de mu ne loolu de reer ba regg nara nelaw te julliwoo gee dong ko jaroon reer ba regg nara nelaw moo jaroon jooy yooyu kon maam Thierno ku am fit la woon waaye ku bëgg sëñ Touba la woon waaye nee na woon ku gëm sëñ Touba la woon bu ñuy lim naan la ki njëkk jébbalu ci sëñ Tuubaa awwalu man bàyyi ani Adama Guèye ki ci njëkk jébbalu mooy Adama Guèye mu nekk kéemtaan sëñ Tuubaa ku tudd Adama Adama mooy awwalu xalqin ki yàlla njëkk bind mu tudd Adama ki njëkk jébbalu ci yoon bi Adama la tudd loolu kii man la du jaar jàngat waaye bu naan la ki njëkk jébbalu Adama Guèye la ba mu àgg ci fukkeel bi muy Cheikh Ibrahima Fall bu ñuy lim ñu ko njëkk jébbaloo ku ñu maam Thierno kenn boole wu ci. kenn du ko ci boole moom ay mbiram fële lañ ko teg moom koo xam ne bi Maam Mor Anta Sali wàccee liggéey dafa dem jàpp ci loxoom ne man maag Cerno duñ doon kooku am na sañ-sañ kooku moom moom kenn moo tax sëñ Mamadou Lamine Diop dagal Cheikh Mamadou Bachir bu ñuy wax ci maam Cerno dañuy dem ak ñu ne kooku daal mook sëñ bi ñun mënuñ koo wax ñeneen ñëpp dinañ wax lii lañu séq ak leen kon mooy exemple lu murid sadiq nee na war sëñ Touba lu mu bëgg dina am te man Cerno lu ma sant dinaa ko def sëñ Tuubaa moo ne wa kullu ma aradtuhu min lu ma bëgg ci yàlla day nekk in faal day nekkal boppam wa kullu ma aradtuhu min ci yow yàlla in mooy lu sëñ Tuubaa bëgg day am lu ma sant naa ko def loolu maam Cerno waxoon ci kon bi ci topp ñu njëkkante ak kii bi heure naa moo jëm ci benn tomb bu mujj bi mbindum seigne touba mbindum seigne touba mam cierno mom mu nes ko jexal te fam na guddi gi mi dem mam mbindum seigne touba seigne touba neena karamati khattu yadi sama karaam bu len ko xol ci fenn dem len xol lima bind manam ñi mu defal yene nañ de waye mom lu jappé wu karaama neena karaamam deug munajat jabil khat ak yenen ak yenen dafa baatine ba mu ëpp diggante sëñ Touba ak boromam ñoom ñoom la concerné am na ci da koo lakk am yoo xam da koo sànni ci yoo xam da koo gasool am yoo xam doon tere mu génne ko kon yooyu warta siiw am na ci yoo xam nag digganteem ak yonent bi la da koo cee jagleel ay tagg ak di wax ay jaar-jaaram akum jàmbaaram ak li mu réalisé ak i saxaabaan yi àndoon ak moom ak yonent yi jiitu woon am na ci yoo xam ne am njàngale la yoo xam ne dafa concerné directement taalibe bi te mu bëgg ñu jàngale jàng ko muy téere xam-xam yi ne na karaamati xattu yat yi fii xidmatil mu ay yat yi al mu ay yat mooy yonent bi mooy ki xam ne yàlla du ko dëgëral dooleel ko ak yi lay ak i preuve yu leer nañ ne na kooku sama karaama mooy liggéeyal ko li ma bind ak sama loxo ci di ko liggéeyal liggéeyal yonent bi seigne Touba ak liggéey yonent boo ko doon tënk mën koo tënk ci ñetti point moy salatu sitta bi mat yi sitta tati bat ma ma ittisaay ma attisaay lool moy lan moy di julli ci mom di ko tagg di ko roy liggéeyal yonent bi ci Touba boko don bay bo rassemblé nako moy dajalé nako moy julli ci mom ak di ko tagg ak di ko roy salatu sitta bi mat yi sitta tati bat ma ittisaay di ko roy nee loolu mooy sama liggéeyal yonent bi sallallahu na liggéeyal yonent boobu waaye wa kaana li bil afiyat yonent bi nag jox ma al afiyat loolu superlatif la superlatif mooy la gën a baax al afiyat la gën a baax la ma jox al afiyat la ëpp njëriñ la ma jox la ëpp njëriñ faidatun mooy njëriñ afiyat mooy la gën a jëriñ kon loolu la wax feneen it nee na xatti sama bind tuusilu murida tarbiya lisil jalaali wa muridu tarqiya xatti sama bind tuusilu day yeggale muridu tarbiya taalibi tarbiya bi sama mbind da koy yëkkati di ko yëkkati di ko yóbbu ba yegg ca zil jalaal mooy yàlla muridu tarbiya mooy murid bi nga xam ne defaru la bëgg defaru ci jikko defaru ci doxaleen defaru kooku mooy tarbiya waaye am na bu gën a kawe mooy tarqiya mooy yegg ci yàlla yegg ci yàlla waxeen la ci koo xam ni day dem ba léppam yàlla la xam nga sëñ Touba magi taalib yi ko daan wuyu ci ci wooteem bi ñu ci bëri ci sëñ Mor Mbaaxeek ñu mel noonu consor googu ñu ci bëri demuñ fa woon ngir wuti xam-xam ndax jàngoon nañ dëgg la sëñ Touba ndax sëñ Touba moom aftil ulama sama mbind ubbi ci boroom xam-xam yi ndax loolu bu fekkoon amul mooy tazoodu sixaar bii ñu doon tudd sànq sëñ Mor Mbaaxe dem na ziyaara ji sëñ Touba mu ne ko xasida googu sama xas taalif googu ma taalif mujj taalif muy taalif bu am njëriñ ndax amoon nga ko mu ne ko déedéet mu ko demal ca ma sàmb mu jox la ma sàmb loolu ca gànnaar la sëñ Mor Mbaaxe dem na gànnaar mu demee gànnaar sëñ Touba ko yëkkati loxoom joxal ko moo ko joxal boppam xasida tazoodu sixaar loolu isne la loolu isne loolu la ñuy wax ndigal la maanaam ab taalibe bi lu muy jëf teg ko ci ndigal pourcentage bi moo ëpp lu muy jëf te tegu ko ci ndigal xasida gu sëñ Muntaxa yëkkati woon ne la dee ko jàng tey ak xasida nga xam da laa neex nga di ko jàng yee boo ko jàngee mën nga ci am 30 pour cent wala 40 pour cent mais des 100 pour cent nga ci am ndax dafa ànd ak ndigal bi izni maanaam woote sëñ Tuubaa bi dafa ànd ak ndigal te soo du si xaar it wax na ci lu yéeme nee na azina lii fii nazmi yàllaa ma digal lu rëy yàllaa ma digal ma woy ko asina lii fii nas mi ma ngi ñetti solu si xaar ba yàllaa ma digal ma woy ko wax ne ku ko jàng dana texe ku ko mokkal munkar ak nakir duñ ko laaj te bu am solo la bu gàttal ñetti buntu la al iman al islam al ihsan sëñ maama radiallahu anhu wa nee na mu woon mbind yi sëñ tubaa jamoon ci tasuudu si xaaru sëñ moor mbaaxe booba gis naa ko ci lakk ak sëñ moor mbaaxe gi fii ci ngayeen lakkee moom xasida goo xam ni dafa dem sëñ ma ne ko sëñ Touba nee na ma jox la xasida gi duma la ko jox global de dama lay jox par feuille nga di ko copier ba mat ndax ñoom dañoo fiiroon ci lu jógee ci sëñ Touba maam Thierno mii ngi doon wax nii sànq nee na sëñ Touba joxoon na ko mbubb moo xam ne bu ko solee day sawara sawara sawar ba du boom boppam da koy summi denc ko nee na nee na sëñ Tuubaa jox sëñ Moussa Ka wax na ko ci wolofal da koy day sawar a sawar ba du mën a maîtriser boppam ndax bu mu jógee ci sëñ Tuubaa la loolu beneen affaire la waaye noonu la ko waxee mu di ko jox ba mu fatu ba mu bind ko bind ko ba mat mu dem won ko sëñ Tuubaa ne ko sëñ topp ko jam ci ay jam jox ko ko mu indi ko ngaye kon ñun am nañ ndigal ci tasoo du sixaar ci jàng muy téere bu am am solo boo xam ne man gëm naa ne képp kuy jullit war nga koo jàng ndax li ci sëñ Tuubaa waxu sëñ Tuubaa nag du séparé murit jullit lay wax muminin muslimin muhsinin muminin muslimin muhsinin jàngal wa kaana xaqan azab dafa war a lisi ak yeneen téere yëpp ak téere yëpp loolu la ci wax xasida yi lu am solo kon mbind sëñ Tuubaa te xasida yi bokk ci nekk ci benn ci am solo lool waaye téere xam-xam yi du am solo nee na isa katabtu su ma bindee aw qaraatu wala ma jàng xër wala day daw day lagg lagg mooy façon dawet la iblisu faw rang daw bu gaaw lay daw maa man taxaw wala maa man taxaw wala su ma jàng su ma jàngee wala ma bind iblis moom day rocceeku gaaw daw ndax ñemeetu faa toog mun munutu supporter loolu munu ko supporter kon xaside yi ak mbind Sëñ Tuubaa nekk lu am solo الأربعة إذا كتبته قرأت أربعة أكتب نعم تنوز ذاك الأربعة لي مزارات الحروف ترى ولا توجه إلي ترى لي المنافع بلا كداري في دارتي أمنا وتلك داري هدى ونور وردا وبركة فجاني في مد الفارق مدركة وجاني الكريم وامتني يا جماعة صدقت لقضي كنت كريما جال في ثوالي بموجل العلوم والأموال اسكي جرجف جزاك الله خيرا على هذه القراءة سن توبا اي مندم لو ام دوله لا اي مندم لو ام njariñ la ci jullit képp ku gëm sëñ Touba du moomeelu kenn moomeelu musulman jullit la weesu na ko sax moomeelu nit la ndax boo seet tukkeem bu gën a rëy nga xam ne moo jur lépp ñaanal wax na ne tukki bi na nekk li xaw mi saadatan li xaw mi mi mooy sama nation Sénégal yëpp feneen mu ne fa bachir dawil islami spécialement nag pour les musulmans foofu fa bachir dawil islami bii aaji la fawran mooy ci lu gaaw kon tukki bi ci bopam ñaanal na ci nit ñëpp ñaanal na ci julli yëpp kon amna na kat bu ne yi maye wërse te nit ñi bëgg ko lool neena na sittatun juroom benn la te yooyu yëpp mu ngi doxuñu ci biir qasida yi ak bind señ touba neena na asbaabu sittatun muhaqqaqa yi sabab wërse juroom benn la yo xamni yu wër la yo xamni ci alquran lañ ko génnee bi ci ñëk moy tuqan ragal yalla bi ci ñaar tawakkulan salatun sadaxa kazaka istixfaarun wa taharrukun wal kullu fi lqurani jaa mudrika nee na juróom-ñaar ñooy maye wërsëg te yépp ak bi bi ci njëkk mooy ragal yàlla ñaareel bi mooy wàkkilu ci yàlla ñetteel bi mooy julli ñeenteel bi mooy saraxe juróomeel bi mooy istixfaar di sàkku njëgal mooy istixfaar rabbi xfirli wala astaxfirullah juróomeel bi mooy juróom-benneel nag yëngatu yëngatu la biñ xam waaye waykat bi da cee teg nee na lakinnanaa li jahlinaa lam naa amali illa bi maa yut'imunaa min amal waaye ñun nag moom suñu feebal tax na ak suñu réer benn bi rek lañ jàpp mooy foog nañu yëngatu rek mooy tax am ñu bàyyi yeneen juróom yépp lakinnanaa li jahlinaa lam naa amali illa bi maa yut'imunaa min amal loolu yépp sëñ bi dëxëñ na ko ci biir xasida yi bu dee bi njëkk bi mooy yàlla wax ci alxuraan ne wa man wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu ku ragal yàlla yàlla defal loo dugg génn ci wërs te wërsëgal la boole ci beneen bi mu ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu ku wakkilu ci yàlla mooy wakkilu yàlla doy na ko dina ko defal li bëgg beneen bi mooy wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha lu beneen bi mu ne wa ma faut min tout fa huwa lu ngeen remplacer ci ci yoonu yàlla remplace koy ak qui maa ko joxe ci yoonu yàlla maa Faut que ak leneen beneen mu ne fa rabbakum istighfar nag moom da qui wax lu bëri day rabbakum innahu ghaffara ku dem ci ghaffar ghaffar ku wala boobu tax xaafir xaafir ñaari yoon la ñëw ci alquran waaye yëpp xafaar lay wax wala xafuur loolu ñuy wax siixatul mubaalaga yàlla ne jéggalu leen ma su ngeen ma jéggaloo dangeen xam ne man xafaar la xafaar yemuma foofu danaa la baal lu ci topp faqul istaghfir man kaana xafaar yursil aleykum yursil aleykum midraara dinaa leen may taw wa yumditkum bi amwaalin dinaa leen may alal wa banina ak i doom kon istighfar day may yi day tax yàlla jéggal la day tax nga am njaboot day tax yàlla may la ay xéewal alal alal ak yeneen ak yeneen beneen bi mu ne fam suufi manaaki biha bi mu wax ne yëngatu mooy fam suufi manaaki biha wa kulu min rizqi kon juróom yëpp mu ngi ci alquran mu leer mbir li sëñ tubaa yooyu sëñ tubaa nee na wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaaliin li wajhi rabbi ci sama mbind bi kitaabati ci sama mbind mii rabbi yow sama boroom rabbi yàlla na nga tarbiya yàlla na nga yar ci sama mbind yow sama boroom kulla mu taaliin képp ku ko yër nag la képp ku ko yër li wa ci rabbi ngir jëm yàlla waaye liir bi nag na nekk ngir yàlla li wa ci rabbi yàlla nag ay sëñ bi nag ay ndénkaaneem da fonk lool ixlaas sellal def te yàlla tax fekkoon na fi ñuy jàng alxuraan fekkoon na fi ñuy waaye lu mu ci mën def fekkoon na ñuy xidma waaye yëpp daf lu mu ci wax da koy booleeg li wacci laay wax dim humoo tural li wacci laay fu mu mën di waxee boo toppoon bay yëpp dangay gis baat boobu du ko fàtte mooy dee leen ko def nag ngir yàlla maanaam looy def lu ne teewul nga def ko ngir yàlla leneen la ci des lépp dina ñëw bu soobee yàlla lépp dina ñëw sëñ Mor baaxee nag bokk na ci li mu ràññee ko woon mooy li ñuy wax al ixlaasu sellal sëñ borom baax yi ku sellal la woon sellal xañ na ko sax yëngatu yi koo xam ne julli sax bu doon seen sago ci sëñ Tuubaa lañ koy defee xam ngeen ne xibla gi yaatu koor fu ne mënees na ko faa defee jaamu yàlla yëpp waaye ñoom dañoo préféré woon di ko def ak sëñ Tuubaa ndax julli ak sëñ Tuubaa nag dafa am garanti de dafa am garanti dégg naa Ablaye Mbaye Pekh mu naan waaye dugg ak avion doomu sëñ neex sëñ Murtala maa moom ci avion sama xel day dal ma ne ko dëgg la de dëgg la de waaye julli ak ci sa julli ko sëñ Tuubaa nekk ah la moo tax ñoom ñëpp dañ daan daw di woor yi ak moom ci Jurbel di wori ji ak moom bu jotee ñu dem sëñ Mor Mbaaxee jógee Jolof dem ba dox ba Jurbel dem ba Njaareen bu koor jotee mu defaat noonu bu gàmmu jotee mu jógee fii dem ba njaareem gàmmu ji ba sëñ tuba jox leen ci ndigal ñuy gàmmu fii ci Jolof ci gàmmu 1800 1918 mooy gàmmu gi nga xam ni moom la sëñ tuba libéré taalibe bi yépp ñuy gàmmoo seen dëkk waaw sëñ Mor Mbaaxe ku sell la woon ci ba mu demee njaareem ci genn julli ci julli Korite yooyu mu daan dem julli gi jot xëlëf xëlëf ji bëri nit ñi xam ngeen ne kër sëñ bi bëri woon nay xéewal de bëri woon na xéewal yu bëree bëri boo demee ci sëñ ci ñett yooyu ma doon wax ci seex yu mujj yeeg mbooloo mujj mi sëñ Mbàkke du ma ko ragal wax de sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ bu soo ko wax moo ne am na ci ñu bëree bëri nag ñoo xam ne café ak suukar saa leen fa sëñ Mbàkke bu mu ne ñooñ ñooy dernière génération bi ñooñu nag mu ne xëlëf-xëlëf ji dafa bëri ba sëñ Mor Mbaaxee wax ci xelam ne man de fas naa yéene ku julli si tey maa lay fare gannaaw di arrière rek ngir bañ a bokk ci ñuy yëkkati sëñ Touba xam nga moom sëñ Touba moom bokk ci ci wax ci xelam mu ne ana ki ngeen di wax Mor Gueye Jolof ñi di ko woo ca cat mbooloo ma la wuyu ñu ne li jafe woon sëñ Touba lañ ma defal mooy di ko xàllal ñu ne ma xàllal di ma xàllal ba as mu ne ma taxawal fii. am naara bu fa bëgg a taxaw sëñ maama di riwaayat sëñ maama nett li bu mag ñëpp nett nañ ko mag ñi fekk ñëpp sëñ cheikh ñoom ñëpp nett nañ ko mu ne am naara bu fa bëgg a taxaw sëñ ma sàmm puus ko ne ko kii lañ wax na fi taxaw biñ noppee nit ñi naan waaw moo jiite mu ne su ma bëggoon adduna dama naan waaw man leen déedéet jiitewu ma de jiitewu ma de nan leer jiitewu na leer kon loolu in dalla ala shay'in fa innama yadullu ala sidqihi su fekkee am na lu muy tegtale day tegtale ak sellalam am na beneen yoon ci jolof bo xamni ni taalibe yëpp dañoo rek batay xam nga seigne touba dañu ut dañ ko autoriser woon bi muy nek jolof ci yéen 1907 ba 1912 40 visiteurs lay am par jour ku fay dem hit amna yenen yeneen parcours bu gudd boy booy yoy boy jaar voilà boobu nak seigne Mor Mbaax dafa demone taalibe yëpp nekk fi ci jataay bu seigne bi nek xëlam seigne bi nek wote na nañ génn muy waa ji commencé tur ba sax sëñ maam waxoon na ko di génn mu ne ko bu ci Mor Gaye Jolof bokk bu ci Mor Gaye Jolof bokk kon moom sëñ Touba sëñ Touba dafa xam sëñ Mor sëñ maam Mor Mbaaxe neen na sëñ Touba xam nga insisté woon na ci sëñ Mor Mbaaxe ñëw Jolof sëñ Mor Mbaaxe diisoon na lool ci moom ba bu ñëwee du ñëwee si ndax rek doy waar bu Jolof doyoon waar maanaam doy waar métti lool sëñ maam laaj naa ko. ak ni jolof météo mu ne ma ku ngóobu di la gis lu mu bëgg du ko am metti lool neexaay bi mi ngi tàmbalee ci suñu cheikh dafa souffrir sëñ moom baax ci ci jolof coono yu méttee métti la fi daj waaye sëñ Tuubaa insisté rek ne ko jolof rek loolu tey lu mu jur ñaata dëkk sëñ moom baaxee fii mokkal ba dimbale yeneen murid yi nga xam ne sax nooyalal na leen yoon ñaata kaamil ñoo jógee fii dem dem Tuubaa ñaata borom yi xam ñaata hadiya ñaata kenn xamul lu mu kenn xamul ci jamonoy sëñ Mor Mbaax ba ci jamono jii nii ñu toll tey kon loolu lépp day tegtale ak sellalam nee su ma mu jógee feneen fu dul jolof su ma ñëwee dinaa ma ana waa jolof su ma jógee jolof du wax dara du ma laaj dara kon xam na ne jógeewu ma jolof kon mbindi sëñ Tuubaa mu ngi noonu tuwassilu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama aghna tuwassilu aqlaami samay xalima mooy samay mbind Sëñ Tuubaa bëri na expression yu muy jëfandikoo ci aqlaami kitaabati mirxami ak xilaami yooyu ay waxee yu muy wax jublu ci ay samay taalif samay mbind kitaabati xasaidi yooyu yëpp da koy wax waaye mu tur la boo xam ne yu bëri dina ko tuddee tanawoo mu ne samay xalima day yeggale nit ca yàlla bilaa xalawati liñ xamoon ci balaa nit a yegg ci yàlla da nga def ay xalwat mooy tëju wéet di jaamu yàlla doo gis nit doo lekk yenn lekk yi di ko def di ko def di ko def muy métti di yàgg di métti di yàgg ba nga yegg ci yàlla ci niñ ko war a waxee waaye dana jàpp taxoo xasida yi moom jarut loolu bu te nga jaar ko fa nga ko war a jaar dalay yeggale ci yàlla lu ñu gis tey ci dëkk bi waaw lu ñu seetlu ci dëkk bi mooy ay daayira yoo xam ne nii tey daanaka toppuñ ci kenn daayira boo xam ni tur ak xas ay xas yi doroo nga leen boole ñu gis ñoo xam demuñu daara waaye ñoo gën a yaru ñu demoon daara loolu moom luñ gis la man moom am naa ci xamee yu bari ci parcelle ak Dakar yu bari ñoo xam demuñu daara waaye ñoo gën a ñoo ñu gën a yaru ñu ñu nekkoon ci daara ñoo ñu gën a bañ lu bon am nañ saxal nañ jukkib alxuraan du tardé jukkib xasida du tardé fu nekk sëriñ bu ñu dégg ci fu ci réew mi dem ziyaar ji xam naa ci ñu bari loolu xasida yi moo ko def kon loolu lu wér kon mbokk maag may junju ne jeex na xanaa ma tëjee rek xasida gi benn seetlu ci xasida gi nga xam ne moo tudd matlabu shifa yi matlabu shifa yi xoolee sëñ Touba ni mu bëree yërmande ci jullit yi sababu taalifu xasida gi dafa am lu ñuy wax benn épidémie épidémie bu xewoon feebar buy wàllaate mooy boo xam dalay jeexloo rek moo xewoon sëñ Touba di ñaan yàlla ngir feebar bi jógee fi waaye ci biir ñaan gi lu ne da cee ñaan waaye dafa dem ba sol robu avocat di défendre jullit yépp mooy wa najjihim wa aafihim fi mu njëkk mooy washi jamia al muslimina saafaral mboolem jullit yi aajiran immédiatement léegi léegi summa qihim te nga fegal leen xawfan ragal wa xisnan ak njàqare aajilaa bu ëllëgee aajila wa aajila aajila wa aajila mooy fii ci adduna nañ saafara léegi léegi léegi bu leen alaxira nag duñ ragal duñ tiit wa najjihim wa aafihim wal tuf bihim wala tuaxisum bi kasri bi kasri sambihim même suñ borom def na ko sa jullit yu bëri bàkkaar yi nga xam ne li ñu yor ci bàkkaar mu ne ko wala tuaxisum bi kasri sambihim yàlla bu leen jàppee yu bëri yi mel ni ku leen dépendre mel ni suñ borom def na ko ñii dañoo bëri bàkkaar dama leen di mbugal mu ne ko wala tu'aaxizu bi kasbi zambi bu leen bu leen jàppee seen bàkkaar yu bëri fa innahum wa in asawka yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad fe ñoom ñoom ñooñu ngay wax dañoo bëri bàkkaar la mooyee it yow yàlla kenn nga dañoo saggan rek waaye ñoom xam ne yow sa nguur gi bokkoo ko kenn kenn kenn mu ne ko ñii faw mel ni yàlla daf na ko ñii faw sama mbugal dinaa ko teg ci seen yaram tey mu ne ko wa innahum abdaanum la taqdiru ala balaay seen yaram yi attunu ko de wa innahum abdaanum la taqdiru ala balaay sa balaay yi seen yaram yi attunu ko li yasaru ngir dañoo faible dañoo faible mu ko ñii dañ maa ñii yaa wax man lañ mu ne dañoo dañ maa dañ maa jublu ñii jublu ñu ma ko qulubuhum laysa tamilu abada ila siwaka seen xol jubluwul feneen fu dul ci yow min huna ila xada mo xam aduna wala alaxira yow rek lañ jublu nak lolou xam ko nag lakin nama waaye kay talasusul jawari ni nga moñe seen ciri yi mo li aqbil khabay mo len pousser bañi def lii yow ya kat yow nak def daf mel yaa leen bindee nii di talasusul jawari ban kilañ kilañ yi nga mo bindé len ko nga xam dañuy mën a def lu bon mën a def leneen ah yàlla ah ndax bi yow afdaahuma li aqbay xabaar mu ne ko dama leen di liñ def faw ma mbugal mu ne falaa tuwaatu sun bi maa laa yam ko so lii la du wàññi dara te mooy njéggal may leen ko du la wàññi dara wala moo xamee la si laaj foofu te may la ko yow du ñoom dana leen jëriñ du la jëriñ waaye ñoom dana leen jëriñ kon lii bu ko seetloo ci la ñuy xamee sëñ Touba bëgg lii nag jullit yëpp la ko jagleen ci àdduna bi jullit yo muslimin muslimin wal muslimat haza wa sallallahu wa sallam ñoo ngi delluwaat di yeesal suñu siyaar ak suñu jéglu ci ci kilifa di leen jéglu ci kàddu yi ak ni ma waxee ci ton bi ñàkk teggin maa ngi koy jéglu waaye mu bëgg mu mu dugg rek moom moomu ci moomu ci yóbbu maa ngi maa ngi jéglu baax maa ngi sant bu baax sëñ Makuro coono bi mu daj ñun te jaruñu ko di sant uh, sëñ Omar di sant uh, waa daayira bu baax a baax di leen wax ne ay royukaay ay naatango lañ leen jàppee ci yoon wi ak ci kii bi nawloo leen lool safoo leen moo tax bi ñu ma ko waxee bu ñu insister rek aw ma ne il faut ma ñëw insha allahu taala jërë ngeen jëf hasa wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa sallam nee na ki ko wax ne man toog fee bu dee ndawit maam maam ba dafa nekk wajur ci moom nee na bu sëñ Fallou jógee noppalu yaram liggéey beneen liggéey bàyyi fi toogu bi rakkam ji te ay sangam bàyyi fi toogu bi moom mu ñëw toog fi doomu aadama ci boppam waxi xelam moo jiitu waxi làmmiñam ndax sëñ Fallou jóg na sëñ Fallou ñëw toog toogaay bii nag duwul jëmmam moo fi toog tur yi moo fi toog ndax bëgguñu fal wute fenn loolu moo tax mu toog fii di ko digal di ko digal di ko maanaam kilifa moo ko digal lenn bi des nee toog na fii waaw nee na maa maa maa nga yaramam wi alaaj alaaj bi gaaj ba ca kër ga la turam bi nag fal bi fi toogoon loolu loolu moo fi toogee nee na ñoom xamee ko noonu la waral loolu dañoo demoon démb di siyaar Alaaji Gay ñu ko mooy seen mag mooy seen sëriñ moom mu bañ te jàppewu ko noonu yéen la sëñ maam fekkoon sëñ moom baax na mu yëmal sëñ Tuba kon yéen ay murit ngeen mu la waaye ner moom falu moom wala mu koy bañ ndax nit ki ndax nit ki buy roy buy roy day day roy day roy ab sëriñam day roy ab sëriñam da jamono jun toll yaay suñ magum daal kon yaay suñ sëriñ kon nag eh, murit googa na sëñ Fall defoon ak i rakam ak i magam waaw jël seen njureel jël seen njureel jël seen njureel jënd ak taalibe seen kilifa gi nee na ñoom it murid bi leen joxoon dañu mu nekk seen magu taalibe moo tax moo tax ñu ko di ko fekk kon taay bu toog fii toog alaaji bi gaaj la si gàddu rakk yi toog ci gannaawam nee na loolu mooy toogaayam waaye bàyyi na xel ñi fi tooge war suñu fàllu jóg moom mu fi toog waaye turu fàllu toog na fi a a la jël gaañ meer bu fi toogee alaaj ji bi Saliou Gaañ moo fi toog ndax moo fi toogal Saliou ndax nee na waxul sëñ Tuubaa waaye ndax ndax béykat yi waaye moo fi toogal ji bi gaañ ngeen xamee ko noonu ki fi toogloo. dafay ndaw waaye suma kilifa la. dafay ndaw waaye kilifaam. dana ko sax na ko ndigal la. moo tax mu toog. waaye wane na moom daal moo fee toog moom. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. kon ñun. ñu gis leen. ñu gis leen. seen i maam. seen i maam. ñu ngi indi murit. ñoo indi murit. Aliou Ramata. Aliou Ramata. dafa topp ay nijaayam. dafa topp ay nijaayam. ba nekk murit ba nekk murit adduna du yàgg mukk adduna du yàgg mukk ba ñun ñu jiitu fii ba ñun jiitu fii dañoo waa daje nekk ñu la dafa yu doon ñoom ñaar bàkke bàkke la ilaha illallah fii wa fi madihil jawastu kahban wa axsaada suñ tubaab ne jéggi naa kax ak busee rek asaan ci tagg ji moroom tagg rasulillah ñu ne ko noo demee rasulillah mu ne maa ngi demee ci moom ni Ababacar ak Omar ak Ali ak Ousmane Cheikh Omar benn góor yàlla dane ma boo tasebee taalu Cheikh Omar ëmb na fanweeri wàllu ak Cheikh Omar Fouti Tall wàllu bu fi feeñ moo la feeñ ba muy romb maam ba koy Maamoor Anta Sali romb mu ne ko kii kumu ñu ne ko sëñ Maamoor Anta Sali mu ne kii fan lay jullee fajar ñu ne ko mooy nodd fii ci jàkka mu ne fa góor yàlla yi di daje moom mii moo fay nay jokkoo sëñ Maamoor Anta Sali ne ko di nga am doom joo xam ni jëmmi nit lay yor waaye leeru sunu borom bay ne ci moo taxit waajuru Cheikh si waajuru Sidi Lamine dani Serigne Touba alxuraan yàlla da koo wàccee ngir mu firi la yow Serigne Touba Cheikh Sidi ko yow di dëkk du biir maami ga rek lu yàlla sànni jamono lu fi waay am di ko yëngal Serigne Touba la ko jox ak koo mën a ak foo mën a bokk Serigne Touba di jox Cheikh Ibra Cheikh Ibra di jox jaam yi barke alxuraan karim boo jëloon wàllu yëpp teg ci balance jël yooyu puuritu fas saaba yi teg ci balance puuritu fas sa puuritu fas saaba yi daa leer wàllu yi boo jëloon wàllu yëpp teg ci balance jël puuritu fas saaba yi teg ci balance jël fas saaba yi teg ci balance جل سامي تكبا جل خلي مبسرين توبا تكبا جل قداني قبل كن فيكون جيهو سرين كن مو دمائي فراد دوامي لما وخن بين غوريال لما نم والله لسي سنتوبا بدمون تجدي نكن جارين دي توفر

yal na yàlla may wér may ko mbooloo bu jullit ma ne kenn du Cheikhul Khadim war nañ koy sant di góorgóorlu lu fi waaye sëñ Tuubaa la li sëñ Mor Jama doon wax sëñ Mor Jama faxa dafa ñëw sëñ Tuubaa fekk ko ci boppatam mu baara na ko sëñ Tuubaa dama lay laaj ba xam wàlliw laa sëñ Tuubaa ne ko banque sa loxo mu banque ko yow moo jóg faxa wàlliw nga mu ne ko man Cheikh Ibra Faati mu ne ko faral mu ne ko kooku du wàlliw ëllëg yomal xiyaam fañ may fayee lañ koy fay mu bankaat loxo ne ko Cheikh Anta mu ne ko faral kooku du wàlliw àjjana la dëkk fa la jóge fa lay Abdoulaye mu ne ko murid saadiq mu ne ko Cheikh Ibrahima mu ne ko moo fara budul woon man di moom Cheikh Ibrahima Fall kula damul ba faatoo yawma alxiyaam du taqiyal jannaatu Cheikh Ibrahima Fall fadala wana bataay Fall am na na jeexi ba ma am na ma daa ma ñëpp di bii ma nga dawee maam Seydou Ndiaye manjera bal fooree yaa ngi dama doon wax ne sëñ Jama moom bu waxee sax waruñu cee tegaat ba ndax mooy kilifaay jotaay waaye dama doon wax ne ku ñu amaat pas-pas ci Serigne Touba te jàppaat Serigne Touba te wóolu ko te liggéeyal ko dama ne juróomi cër yi soxna jaaraa ko am ku dul soxna jaara keneen amu ko juróom ya tegi sëñ Touba ko am ku dul sëñ Touba keneen amu ko na jaara ba mu royee soxna jaara pour jigéen ñi rek moo tax ma leen koy soññi soxna jaara ba mu royee maam astawaale mu ci naawee ba nuyu ko yàlla jël darajee maam astawaalo ak sañ-sañ ba jox ko mu xam ne maam astawaalo yàlla doonul luy jeexal mu roy sayyidatina Mariam yàlla jël sañ-sañu Mariam ba ak daraje ga jox soxna jaariyatu leen mu roy soxna Amina mu jël darajee soxna Amina ga ak sañ-sañ ba jox jox na jaariyatu leen mu roy soxna Fatima mu jël darajey soxna Fatima ak sañ ba jox soxna jaar ba pare na ko yow yàlla na ko yow may naa la loo xam ne mayu ma ko ñun soxna jaare ne teg na ko lan mu ne ko jaariyetul lekk booy lekk booy naan booy dox booy tëdd booy jàng alxuraan booy julli man maay sa wéttal yow soxna jaariyetul lekk moo tax yàlla rek rocc parce que su yeneen ci yàlla isaaba jox ko Cheikhul Xadim hmm? sëriñ bi kenn xamul fu doon foo ko nag lu nañ leen sa dat sëñ Tuubaa beneen bi mooy sëñ Mor Jama li mu doon wax léegi sëñ Fallou man bëgguma mot bëgguma doon seede ci moom ndax waxoon naa ko ñii koo xam ne ca dëkkam la ne nga nekk Ndakaaru la ngeen di déggante téléphone bariwul saa yu xëyee defar la ci baat saa yoo ko wooye billahi mi ngi may dégg dama lu dul ceerno yaakaaruma lu ma am ceerno Ibra Faty ma ko may damay faral di wax ne ceerno ma suukar ba ma sax waaye sëriñ Mor Mbaaxe Gueye moo ma xorom waaye Cheikh Ibrahima teg ci yoon barki sëriñ Tuubaa amul ku may jey ci addina saa yu ma ko wooye dana ma maa ngi jàkkaarloo sa jëf yi xaside yii tuxfatu bii sëñ Fallou ma ko jox ngir sëñ Mor Jamal li mu doon wax rek laay moo ko jox jox ma ay lim ma koy def billahi wallahi wal kitab ci tufatu laa xamee ci sëñ Fallou Gueye laa xamee tufatu boo ko jàngee boo naanee ci kaas yàq ko ñu jéggal ko ay bàkkaar ci sëñ Fallou Gueye laa ko dama leen di dénkaat yéen njabootu sëñ Fallou Gueye jàpp leen te fonk ko te lu waaye di wut ciw sëriñ daje ni sëñ Fallu dama leen koy dénkaat billaahi wallaahi waxoon naa ko fi dina leen gën le sëriñ ci yére gën la leen sëriñ ci oto gën le leen sëriñ ci kër waaye billaahi wallaahi wal kitaab la sëñ Abdoulaye waxoon sëñ Bàkke Madina sëñ Tuubaa bu ñëwoon jamono sëriñ Fallu du changé toogin la ma waxoon sëñ Muntaxa ne ko sëñ Tuubaa góor ga ne ma sëriñ Tuubaa daa sotteeku ci jëmmi sëñ Muntaxa ba jeex tàkk ñu ne fa la yem Cheikh Ibra dool lépp ca waaye billahi wallahi wal kitaab sëriñ Mor Mbaaxe Gaye daa sotteeku ci jëmmi sëñ Fallou Gaye bañ demee ne fa la yem sëriñ sëriñ Mor Jama ñëw dool lépp ca sëñ Cheikh Gaye dool lépp ca sëñ Maama dool lépp mu doon sëñ Fallou zaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa Baye Gaye ci yow nag laay tourné waxoon naa fi daaw boo bëggee gis koo xam ne faatoogul te dem àjjana ci bàyyi kay mi laa ko wal kitaab murid sadiq bu ma doon wax ne suñ Mor si bëgg sëñ sëñ sëñ Baye Gueye mii nag. am ci Baye Gueye waaye eh, bu mu dem gum léegi dégg nga mu dem gum léegi dégg nga. dana <laughs> fi yàgg dana fi wér. barke Cheikh Fatou. loolu rek laa amoon lu may seet. beneen bi mooy li may bëgg a wax nii nag mosuma koo mosu mos mosuma koo def. li ma bëgg a def nii nag daan naa fi ñëw. waaye awma ma yéenee di ko def ndax dafa am bis bu may taxaw ca géejawaay ca weeru koor bi muy fulk fulk bi laa bëgg a taxawal ca géejawaay ca koor ba te dama ko war a wuti Tuubaa ji suba may ñaan ci barke Cheikhul Khadim lu waay am ñëw fii fekk ma ko jox ma ko addi fulk bi mu doon sa njëggalu àddina ak àllaaxira bakkaar maa ngi ñaan ci dara ji Sëñ Fallou Gueye képp ku ma ko jox yal na doon bul ber xaalis fulku bi ak xaalis bi damaa bëgg fulku bi xaalis bi jënd ko فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاه يا الله افتح لي اليوم بمطاع سيدنا أبواب خير المنتج واستغفار ورد لي بألف المعلومة يا واحدا لين القلوب ورد لي بألف المعلومة يا واحدا لين القلوب ورد لي بألف المعلومة يا واحدا لين قلبي صفا والجسم سويا ورقص على سافي المسافر قلبي asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm mboolem fu waaye nekk ci àddina bi rek di seetaan Guédiawaye info tey ñu ngi ak ki nga xam ne mooy alaaji Gaye Mbaxe euh, macha allah di borom ki nga xam ne moo gàmm gi ci mbaaxu yàlla ci loxoom la ci xalaatam la ko yàlla tàmbalee ba yëfi ex tey fi ex ma bëggoon ko laaj kay gàmmu gi euh, lan mooy cosaanu gàmmu gi gannaaw moom ba mu ba pare. asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yal na nu yàlla dolli dimbale ba lu fu wax nit mën nit mën koo dégg ci kattanu yàlla ak yonent ba ak Serigne Touba. gàmmu gi de ni mu sosoo damaa nekk ndakaaru di gis uh, sama mbokki jullit yi wala mbokki murit yi ñuy def ñuy def ay.

la la a ah mun na ko bëggee man naa ah, ma ma wax monsieur Ndiaye rek booba monsieur Ndiaye rek moo nekk ci man ma ne ko mu toog reer nga ñëw fa ànd ay taalibe ñu ñu ñu ñu jàng sëñ maa man nangul ma ma wax monsieur Ndiaye monsieur Ndiaye boobu moo nekk ci fi nekk ci man keroog ñetti kilo kilo ceeb moom la toog reer keroog reer keroog sëñ dem dundoo woo ay taalibeem ñu ñëw fa fanaan fa jàng ba ba setee ba ba amut miskit la ñu wuti def café moom lañ ndekkee sëñ maama ñaan ñu dem ca deman ma defaat noonu sëñ maama ñëw ànd ak taalibe du ji ngéyeen dunda ji ñangeen ca gannaaw dia sa sama bay basiru gaj, rek bay Amad Lamin gaj, basiru Gaaj na nama? gay Mana ne ko Mbàkke mun de di nga bëgg a bokk ci gàmmu gi ma ne ko kuantan, ah, bay Basiiru loolu de bu ngeen ci bokkee danaa kontaan te yéen itam da ngeen kontaan ndax kon su ko kàddu kon danaa fi indi loo na ndax non non fii ci euh, réew mi da ngay luye fay quatre cent mille trois cent mille ki koy installé lu ngoy fay booba sëñ maama daana ma wax may ñëw Ngayen di indi rajo Ngayen ñu di ko gàmmoo waaye waa ji dama koy luye ri ri grand mot angle balanço fa la ko dañ su ñëwee fanaan Ngayen ci gàmmo su bët seetee may ko dugub may ko ganaar mu ñibbi ma ne ko man si ma ne bay Basiir gàj ci bakkee man danaa fi indi lu tumaranke booba man maa ngi nekk daayira bu ñuy wax gumaalo sekk ci Ndakaaru gumaalo mu nekk rue 22 angle 25 nekk benn daayira boo xam ne moom la sëñ Fallou mooy daayira bi bi doon liggéey jubaay Serigne Touba ji ma nekk ca membre booba rajo boobu moo tax ma ne woon bay Basiir bu ngeen ci bokkee booba xamoon yaakaar na yaakaar na man danaa fi indi rajo te kenn du ci fay dara ndax rajo daayira ba bi ma waxee sa bay Bassirou na ko dem bi ma waxee Bamba ku ñax wax Bamba Diaw moo nekkoon suñu président euh, bi ñu jiite euh, euh, ñun taali bi daayira bi na ko damaa bëgg a yóbbu daam gàmm gu may def Jolof de sama kër mu bëgg nag yóbbu rajo rajo rajo daayira bi Bamba Diaw ne ma laa yow kay boo soxlaa ñu ñu jox la ko ban bis la ma ne ko samedi de boobu ñun ay samedi lañ koy def Serigne Cheikh Gaye ba mu ñëwee. moo ko soxal ne ne moom léegi da koy def ci nisfu saabaan waaye dañ ko daan samedi rek comme ni ko ñëppay defee yàlla dogal na ñu jox ma rajo bi ma dal di ñëw indi rajo bi indi ko ngiij toor fu kal ngiij ak ngayee nag dunde jeeg bàyyi lag ñëpp fanaan na ma ka waxee woon mu nekk jàng yoo xam ne musul am ci jolof te fayun dara ci rajo bi ndax daayira ba ma bokk ñoo ko jox ma indi ko waaw ñii daal la la la la mbir mi euh, démarré. su ma la déggee yow yaa njëkk ki nga xam taxawal sa bàyyi ñu fekk. maa ko euh, euh, taxawal naa ko ñaari at ba ka bay ba siiru gaaj moo ne ma gay ma ne ko mbàkk mu ma dañoo bëgg a bokk ci gàmm gi ma ne ko loolu bu ngeen bu ngeen ci amee bu ngeen ci bokkee dana ma lool booba itam danaa fi indi loo xam ne lu tumaranke lay doon ndax booba rajo booba ah du ma ne maa ko njëkkee ni ci ngi jee waaye waaye de xëy na. ba nga taxawee ba léegi yàlla dimbali la mu juddoo ci yow parce que suñu junni yàlla ko tardé. moo tax ma ne su ma xamoon nu ñuy sant yàlla boo xam ne foo jaar ñëpp xam ne kii dama koy sant yàlla kon daal fu ma jaar xaw ma damay fecc xaw ma damay ree xaw ma nu may def rek juróom benn fukki ak ñett jëreen ji mosuma ko manqué loolu ma yàlla defoon damu ma nag yàllaa ne yow lu wax ci wa waamaa bi ma teel a dugg. Fadis. noonu laa ko waxee de ay eh, waaye ma defal loo xam ni ñëw ko am juróom benn fukki at ñett ci ren musu ko tar ko du nawet du guddi du bëccëg musul am sëñ Mor Jama jox na ma ci ndigal weeru ko euh, maanaam troisième fois bi bi ko ñetteel maa ko fekk Touba weeru koor mu ne ma ah bay Cheikh xam ñoom seen bay lañ ma tuddee moo sëñ Modou Mbax Gaye yow di nga nga defee ak magal de man ko waawoo ah ñaari yëpp de maa ngi ko doon def mu ne ma jox naa la ci ci tey weeru koor wii tey ci Touba ba maa ngi mu ma jox naa ci ndigal dee ko def bu ngeen demee ba mu tolloo akam ceebo xam nga ceebo taw taw taw bu njëkk bu ngeen demee ba mu tolloo akam ceebo xëy leen ji jot sooy ngeen ñëw bu ma jàng benn maway bu wala benn mu xadimaat wala benn ges bu baax na bu ngeen xëytee xëy dem ak ci tool ya loolu sëñ ma Jaam moom moom jox loolu ndigal loolu nag ba ba léegi wax dëgg yàlla yàlla defal na ci sutura. ñu gis léegi nag yàlla defal na ci sutura daaw nga wax ne dëgg-dëgg dem nga ba nekk mag jël nga ko jox sa doom. daaw ma ne ma ne Baba Koddu dafa li tubaab bi wax retraite war na ma. ci kër gii lu ma def juróom-benn fukki at lu ma def juróom-benn fukki at ndax ci sa ci sa ñeenti la tàmbali màggal gi ci sa ñeenti ba tey jii soo ko limee mu nekk juróom-benn fukki at ci ren ma ne sa Fallou Gueye sa bay joxe ma ndigal léegi yaa ngoog baaba ko dongoog bu déwénee suma ma su ma fekkee ñaanal leen su ma fekkuut ñaanal ma waaye lu waaye def juróom benn fukki at yoo xam ne mosoo ko manqué doy naa sant yàlla loolu loolu ñu laa def keroog keroog sant yàlla ak yonent ba Serigne Touba ak sa sa dëkk bi ndax sama yaay moo tax gaaj daaw moo sax gay mbaaxee murid rek la ma daan tuddee gay murit lu muy liggéey ci ci dëkk dëkk njiij boobu ak bii daaw mu ci des gannaaw lépp lu liggéey dëkk bii ca woo waxtu na daam daaj tege wala keneen beneen taali bi bëgg bëgg na eh, teg fii dëkk bi noonu la daan tegee yàlla doon ma dimbali ci loola jumaa ji kenn defu lu ma ci mbaar mii kenn defu lu ma ci loolu moom loolu moom moom moom yàlla yàlla na ma ci ak leneen loo loo war a alhamdulilah ñu ngi leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal leen tawféex yal na yàlla defal leen jàmm euh, surtout suñu yàlla defal ñu ngi leen ko ñaanal yàlla yéen tamit yàlla defal nañ ko yàgg fi lool yàlla faj seen aajo dafa leen ndax lii wér rek moo ko moo moo ko waral yal na yàlla defal leen wér barke barke sëñ jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. xam ne yéen jamono ji koy kilifa yi di sos daanaka mënoon na ay ndaw ngeen yéen ànd ci ñoom lan ngay wax ci gàmmu gi. waaw kay gàmm gi liñ ci mooy sant yàlla rek ah, ndax ba muy tàmbali boobu boobu ah, li ma la wax rek ah, oyofoon na waaye oyofutoon ndax pas-pas rek moo indi fi yi nga nit ki lépp lu mu am pas-pas ab def ko te yàlla tax bu mu fecc pas-pas ba mu su ko fecc wër la mu bëgg yàlla dana ko defal loolu moo indi fii ba fii liñ ci bëgg wax mooy ñun ñii fii may waxee yow nii tey ñun ñun wàccee nañu suñu doom tey ñoo yor liggéey bi te def na ñun loo xam ne ñun yaakaaruñ woon na ñun ah, gàmm gi dana fàgg te ñoom ren lañ jël kon ñun ñi wàccee nañ xëyatuñ ci gontutuñ ci waaye lan ca soxla woon ñun ñoom def nañ ci lépp suñu njort loolu nag kon feddali nañ seen kóllëre ñoom pas-pas ba mag ñu fasoon ñoom àggal nañ ñoom ñoom pas-pas boobu ci lañ ci lañ ci lañ taxawaat ndax fas nañ ko ba mu dëgër te duñ ko fecc ma ko illaa ñoom liñ bëgg dañ ko am te liñ bëgg na ku ku fas ku dem jébbalu ku ne pas-pas nga yóbbu te pas-pas bi boo ko fecciwut doo ko fecc mukk wa illaa li nga bëgg Sëriñ Tuubaa da nga ko am ci lii la ñuy dox kon la mag nga façon dikk na ci suñuy loxo te yàquwut teg nañ ci loxo suñuy doom ak suñuy sët yàlla nañ ko la ñoom fan bëgg te fan bëgg mooy weesuwul weesuwul Sëriñ Tuubaa rek ñun suñu dox moom weesuwul Sëriñ Tuubaa luñ bëgg rek mooy àgg foofu waaye nii ni ñu ko dëkk bi jàppale nag mooy li jare sant yàlla ndax su fekkonte ne dama lay wax ne téeméer la boo téeméer bi moo koy defar danga ce cee xamewut benn loxo ba téeméer ba mën na xamewoo ci benn loxo loolu ay bokk ay bokki jullit ñoo ko bokk ndoo def kon lii day doon ak sant yàlla goo xam ne gi yàlla mi ko def yal nu yàlla yal dimbale ci nim nu ko defalee ba nun ñi liñ ci sentu ci suñu jort yalla defal na lu gëna a lolo ci mboolem nak fu ngeen mëna a ne ci alam bi ah, képp koo xam ne kii daal teg nga ma bëtt ci li ngeen di ci wax ak man ak fo mëna a ne yalla na yalla defal sey mbir waaw mooy ñaari kilifa yëpp nga hmm. xam ne yàlla leen ci hmm. wax bu am solo nga wax la hmm. wax nga ne nga yanu ngeen ko bi mbokk gi ñëpp jappale leen dimbal leen ci mix fi lan ngay wax ci andu gog nga xam andu ngeen ak mbokk ah fi lañ ko fekk xam nga fi lu fi nekk bay nijaay maam bàjjan doomi nijaay doomu bajjan amut leneen tëru ma fi ne benn bopp la man mii ngi posé question sa nijaay la sa bay laa ci genn wàll gi kasaale kasaale kasaale dëkk bii wëral dëkk ba mu daj kër gu ne mën ngaa wax mën ngaa wax ki moom kër ga xam ña fa dëkk kenn ku ne boo ko nuyoo jox jox loxo xam kan la xam lan la ci yow loolu mooy la jafe ba dekk bi dañ ne kër gu lu neex man nga fa tok am fi mbaa nga reer ndax sa badjana fa ne wala sene jay sama bàjjan daana wax ne bo sante gaay mu na sa badjana sa badjana nga kundulen bo sante kundu mu na sa badjana nga gaajeen ñaari rek fi ne tay lan ngay dénk doomu dekk bi yeb nga xamne ne bàyyi wala ne ko mu rafet egsi fii tay lan ngay dénk doomu dekk bi lu gëna andal àndal ah, kay tàggoo ñu ko fi xam nga li andat gi moy xol yi na pas-pas bi ne ci xol yi xam nga dafa am fo xamni fi ci madd bu sifa yi bu ci julit ñepp tënku woon billaahi bu la neexee wàcc fii seen saag yi kenn du ko laal fa sëriñ Tuubaa di waxee wàcc al quluubana ala tawadudi bila tanasuhi wala tahaasudi wala taqaasumin wala tadaburi wala tabaqunin wala tanafuri atta nasir al muslimina xaasiin wa muminin muxlisina saalihin loola bu ci adduna bi ñëpp a tënku woon kenn du yàqal kenn dara kenn du yàqal kenn dara li wax yaa ma ko xam te loolu nag da fekk ñun fi ñu di doxé fi fii waaw loolu ñun ñu ngi dox moom ci la ñuy dox ñun xol yi doon ben ñu ngi ciy dox ndax luy sa soxla di sama soxla ko ne fi diw nangam la la wala motax mu taxaw ci kenn ku ne nga am ciir ci sa morom ba tax lu xew ci yow man suma fi fa ciir bima am ci yow motax ma ñew fi moo kenn ñew fi kenn ku ne da ci am ci yow ciir li mo nu fi dajale ci yow kon dan la bokk ci sey dogun la kon lo xew li ñun war nañ ci taxaw li moy li moy li rek waaw yàlla defaral la euh, macha allah mën naa wax xam rek. yow hmm. yoo xam ne fekkee ko ko. Hmm. ba suñu jëlee hmm. yëg-yëg bi. waaw yëg-yëg kay euh, kundalam mooy biñ ah, koy def sama bay ñoom ñoo ko doon def boobu ñun ñoom buñ koy def ñun fee la ñu nekk di football ak ak fo. te tey sunuy doom ñoom ñooy togg ñoo def ñooy joxe togg ñooy jàng kaamilu alxuraan ñooy jàng xasaay bi waaye lii kay réussite la dama ne sama bay ñoom biñ ko doon def. ñoom ñoo daan dem jëndi nawi ñoo daan dikk suñu yaay yi ñoo ko daan togg ñun booba ñun football ak daw rek dañu xaar ba tànt bi commencé ñu daw di wër tànt ba bët set duñ sax taxaw booba mag ñi daan def lépp léegi nag ñun dañ dama la mag mu ci sàggan ba mel ne man gone yi dem bala ndax ñoom ñoo yore kaamil bi ñoo yor xasaay di ñooy dox ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ceg xaalis bi ñooy ñooy togg ñooy séddale mag mu ci sàggan ba mel ne man gone dem bala ñii nekkutuñ gone yoo xam ne dañ naan ne taxaw leen ca gannaaw bu njëkk ba dañ wax na gone yi dem ca gannaaw waaye lee gone yi wax nañ dem ca kanam la sëñ Saliou waxoon ah, la sëñ Touba defoon ci mag ñi naa ko def la sëñ Touba defoon ci mag def gone yi loolu ku ko dégg ku ne foo fekkati gone war nga ko teg sa kanam ndax yéen ñi ñu teg seen kanam yëpp ay alim rek fi nekk ay jànkati alxuraan rek waaye yéen ngi yor seen diplôme yi bokkut ak alxuraan ji yéen ñëpp ay ay ay ay imam ngeen te yàqul sen sen sen sen sen aduna bi dara lolo nak suñ ko amé yeen fuñ len fekk ngeen du kurel ñun dañoo len top sen gannaaw kaddu mu julay teje sant yalla tay ñaan rek lima lawakon, la waxoon képp ku ak man dal yalla nay mbiram jak ak fu gona meena ne te di julit mo xam kum doon yalla bu kenn faatu ci ndaw yalla nu yalla dimbale kep ko di ndaw te di ndaw ndaw lu jup yàlla boo faatuti ci ndaw yàlla na gone yëpp àgg yàlla na liggéey yëpp barkeel yàlla na wërsëg yokku yal na jàmm ji yokku yàlla na yàlla nangu sunu taalibe na nangal sunu jaamu yàlla yàlla nañ fi daje ay diwan yu bëri. wa rahmatu sayyidina alayhi salaatu wa salaam barke sëñ Fallu